sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani xaw qawli ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi dellu di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dellu di sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen ndokkeel di leen jaajëfal bu baax it ci ànd bii ngeen ànd ak rajo Futurs Médias RFM quatre-vingt-quatorze kaddu gi di bayiko filé ci ndakaaru Médina rue quinze angle Corniche ñi profité bu baax di ñaanal suñu kilifa diiné yu tedd yi tàmbalee ko fële ci diwaan bu Touba di Cheikh Muntaha Mbacké eh, mi nga xamné mo fi nekkal Cheikhul Khadim di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu doli ko fay yàggal bu baax ta doli ko wéral eh, ba mboolem li nga xamné lépp ko ci liggéeyal ko Cheikhul Khadim lépp suñu borom kattanal ko mu liggéey ba def ci ne kaw njortam. ñaanal ko bu baax it euh, mbokkam bu tedd bale ca Tiwaawan di sëriñ Ababacar Sy ibnu Alaaji Mansour xalif sénéral de Tidiane euh, moom itam ñu ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu dolli ko fee yàggal bu baax te dolli ko wéral ba mboolem li mu yéene ci liggéeyal ko Cheikh Seydi Hadji Malick Sy eh, ci xadra malikiya ci njabootu Cheikh ma Tidiane yi suñu borom kàttanal ko moom itam mu liggéey ba def ci na koy njortam eh, ñaanal ko bu baax it eh, Seydina Abdoulahi Thiaw Laay mi nga xam ne moom mooy xalif général de Laayeen ci njabootu Seydina Limaamu ak mboolem njaboot gi yëpp ak fu ñu di Nek, ñu ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu doole ko fa yàggal bu baax te doole ko wéral euh, ba mboolem li bu yéene ji liggéeyal ko mu mën matale noni itam dañ koy ñaanal euh, mbokkam bu tedd bale ca Léona Niassène ak euh, Medina Baye di njabootu maam Abdoulahi Niass njabootu maam maam Baye Niass ak maam Khalifa Niass ñoom itam ñi ngi ñaanal kilifa yu tedd yooyu nga xam ne ñoo seen i suñu borom yàggal leen fi bu baax te wéral len. Eh, di eh, eh, ko ñaanal bu baax njabootu cheikhou Canaba Seck maam Amari Ndaak Seck moom itam ñu ngi ñaanal khalifa ba suñu borom Serigne Abdourahim suñu borom gën ko kattanal gën ko fi yagal te gën ko wëral tierno Bachir tal mi nga xamne itam mo jité njabootu Cheikh Omar Fouti Tall kilifa bu tedd bu baax googule di ñaan suñu borom ñu xam nim sat bu mu ci khalifa bu mu ci man di don Eh, di ñaan suñu borom rek mu gën leen a yàggal bu baax te gën leen a wéral eh, ba mboolem li nga xam ne lépp moom lañu yéene ci liggéeyal ko ci seen atimaam yi eh, suñu borom kàttanal leen ñu liggéey ba def ci na ko seen njortu di ñaanal itam mboolem julliti Sénégal yëpp wa Ishaqa wa Yaqub ma kaana lana an nushrika billahi min shay'in léegi nag kon programme boobu nga xam ne moom moo di tabaski xam ngeen ne benn fan rek moo dox suñu diggante ñu amal ko fii ci réewum Sénégal Euh, donte xëy na suba ak jàmm lañ koy amul fële ca màkk loolu moo tax xam ngeen ne fukki fan yi njëkk ci tabaski mooy fukki fan yi nga xam ne euh, tànneel la ci ngëneel la ci at mi yëpp ndax mooy fukki fan yi gënal yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ci kaw suuf loolu moo tax rajo Futurs Médias xam ngeen ne topp gi muy topp programme actualité moo xam mu jëm ci wàllu diine jëm ci wàllu àddina ak euh, fànn bu mu ci man di doon moo tax xam ngeen ne bis bi tey ñu def ko programme spécial mu jëm ci wàllug bisub xarafa nga xam ngeen ne fële ca màkkatal mukarrama ujaat yi nga xam ne ñoo fa nekk noonu te aj gi xam ngeen ne eh, ren ji dañ ko ci eh, ba tax na lu ëpp ci àddina bi mu mënuñoo dem fële ca màkkatal mukarrama amal eh, seen seen seen lu farata di xaj gi waaye ña ko fay amal xam ngeen ne tey jii mooy seen taxawaayu xarafa loolu nag moo tax tey jii ñu fa yéene ko waxtaanee lan moo di xarafa ban cëslaay la am ci diine lislaam ak itam lan lañ ci mën a jàngatee ak euh, lan moo ci war ab jullit ci loo xam ne loolu lépp daañu ko fa yéene waxtaane ñuy gërëm bu baax nag euh, suñu kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci jataay bi fii ñu toog sax ñoom ñoo fi war a toog euh, mu di Oustaz nga xam ne mooy suñu kilifa mooy suñu njiit di kilifa gu mat kilifa di chef desk lise bu rajo Futurs média ñu di ko ndokkeel bu baax moom itam di rafetlu taxawaayam ci liggéey bi ak suñu xarit suñu mag suñu mbokk taalibe suñu jëwrin mu di Xasi a Sekk moom itam ñu koy gërëm bu baax di ko sant di ko ndokkeel eh, di rafetlu bu baax it eh, taxawaayam eh, ci liggéey bi ak cofeel gu am solo gi nga xam ne moom la ci àndal kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di gërëm Abdoulaye Diop mi ñu nekkal ci wàllu xarale gi xam naa kon dañuy daal di dugg rek ci waxtaan bi ñun moom dañuy ubbi rek waaye mën naa ne sax bokkuñu ci waxtaan bi Euh, ndax booy wax ba toog ak sa kilifa euh, gi nga xam ne bu dee xam-xam moo ci sa kilifa bu dee ci diine ji moo ciy sa kilifa euh, bu dee ci dundin wi itam ci at ci at yi itam moo ciy sa kilifa doo def lu dul toog di déglu kon damay bàyyi kàddu gi ak Xaasi Njaga Sekk mu ubbil Oustaz Mor Thiam bu ko defee incha allah ñu mën a ñu mën a dugg ci waxtaan wi Oustaz Mor Thiam it bu fekkee am nañ ci ndigal ba tey ndeka moom moo waroon a ubbi moo waroon a jiite jataay bi moo waroon a wax jaar leen fii ñu topp ci ginnaawam Euh, comme moom mi ngi toog it euh, daañu ko bàyyi euh, moom it mu jël kàddu bu ko defee buñ nuyoo ba noppi ñu dugg ci waxtaan bi nga xam ne tey ji spécial xarafa la bisimilah yaw saas ok di jéggalu di nuyu ñëpp di ziar ñëpp macha allah ci bis bi xaaj njaga ñu ngi lay nuyu di la ziar di wax rek ni am suñu benn mbokk mu nga xamante ni bii ma nga ca Arafat hmm. di Omar Faye Oustaz Omar Faye hmm. nga xamante ni bii ma nga ca barab ba am nañ ko ci ligne bi pour mu war ñu waxal lan moo nekk foofa soo nuyoo ba pare rek ñu dem jël ko incha allahu taala ahoudubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen nu ngi leen di baalu xaq di leen baal ci bis bu tedd bile di wax di ziara rek euh, oustaz Mor Thiam waaye di ziara itam sëñ Mamour Mbakke di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Euh, boo ko waxee ci Sénégal nag ñu ni la maara day taali mm-hmm. <laughs> waaw te tedd pour loolu waaw waxtu wu ne danga ko war di wax mooy ci yàlla la ñu jóge ci yàlla la ñuy dellu saa yoo waxee nag baat boobu mm-hmm. nit ñi dañuy def daam ku dee mm-hmm. dañ ko jël rek def ko waxuma def ko def ko annonce dee waaw te te noonu euh, day loo xam ne yàlla sunu boroom moom moo falan war a ne bis bii nag dafa bokk ci bis yi nga xam ne yàlla dañu ko créer pour que ñu war a gën a fàttaliku ni ñun ca yàlla la nuy ne ndax ku yàlla mës a dimbali nga dem arafa rawatina ji weesu nii rek nga xam ne euh, tabaarakallaahu euh, daanaka wal ma dañu dem ba dañu indone mooy arafaat ji weesu dëgg la waaw xëy na nag tabaarakallaahu metti wan na ca na mu demee woon waaye sant nañu ca yàlla ci ñi ko yàlla defee mm-hmm. euh, ni nga ko waxee nag arafa bi ren mu fekkee mu jamono bi mu fekkee muy jamono mbas ñu tuddee ko ko waaye ba kenn xamul sax lu mu ndax la lañu daa xam daawut yàggee nii daawut demee nii itam mosu fee amee nii kon nag loolu insha allahu taala daan ci ñëw defe naa ni ni ko oustaz Mor waxee eh, ndeysaan sunu xarit ba yàlla na yàlla yeesal yërmandeem oustaz de daan ko wax naan ndënd su ko jiitu ci rëndëng loole daanaka falan toll am na ku ne ca barab ba gis nañuy defee arafa tey ci mbas mi loole dañuy bàyyi ak oustaz moo rek kàddu gi incha allah salaamaaleykum wa allo mel na ni ñàkk nañu oustaz Omar mais dinañ ko dinañ ko amaat incha allah may bàyyi koo ko parce que moom moo nekk ca barab ba bokk ci ñi nga xam ne hmm. dañ leen copté ci ñu war a ajaale noonu laa ko njorte noonu macha allah ci bismillah mu ngi ci ligne bi salaamaaleykum Oustaz Omar waaleykum salaam rahmatullah Oustaz Mor Omar maa ngi lay ziar ñu ngi ñu ngi delloo ziar bu baax alhamdulilah. maa ngi bokk jotaay bi fii ci studio bi ma nekk nii Hadji Ndiaga Seck ak Hadji Makhtar Mamor Mbacke. ñoo ngi leen di bu baax a baax. ñoo ñoo ñun ñoo bokk jotaay bi. ah ñun kay fi mu nekkee nii eh, ñun. Hmm. yaa waroon a nekk suñu gan waaye ñun ñooy sa gan yaa nuy nekk suñu bët foofu. nekk suñu nopp foofu hmm. léegi nag ñu bëggoon rek comme aj gi ni mu demee ren. Hmm. nga xamee ci ni bi ci xabaar yi ñu ci am gouvernement Arabie Saoudite dafa tànn. ñoo xamante ni bi ñoom la war a seqal aj gi. Mm-hmm. te yow yaa ngi yàlla def na ni bokk nga ci ñi nekk foofu ci barab boobu. Mm-hmm. léegi nag ñu bëggoon rek euh, bixtisaar nga résumé nu naka la naka la mm-hmm. demee ba ngeen toll foofu incha allah ak arafat bi nan la demee ak yeneen taaliqaat yoo xamante ni bokk yi dinañ ko mën a xam macha allah. macha allah. aywa Oustaz Mor euh, dañuy yàlla borom bi subhanahu wa mi nga xamante ne ci xéewalam yi la ñu teewee bërëb bii mu boole ñu ñu bokk ci ujaat yi nga xamante ne ñoo ko wuy si tey di wax la bayk allahumma la bayk euh, loolu itam jaam bi yàlla bu ko mayee amul leneen lu muy def lu dul sant borom bi subhaanahu wa ci xéewalam yi màgg yi nga xamante ne boole na ko ci euh, ginnaaw loolu itam ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi mi nga xamante ne moo aj màkk ci atam bu mujjé ba mhm. ànd ak yi tedd ya mhm. Muna len khuzu anni manasikakum mhm. na ngeen jele ci man ni ñuy ajé mu nekk premier guide ci aj ginaaw loolu di len nuyu yeen ñepp di ziyaare ñi nekk ci studio bi di nuyu bokk Sénégal yëpp euh, du ñu tudd tur waaye ñu ngi nuyu ñepp di len ndokkel ci aj bi di len ndokkel ci bis bi comme ni nga ko waxee maa nekk seen gan waaye yàlla boole na ma ci ganam yi yéen itam invité nañ leen ñu bokk ak yéen dund ak yéen bis bi nga xamante ne mooy bisub Arafat ñu nekk fe nii comme ni nga ko waxee aj bi euh, depuis lu jiitu weeru koor gi ñu ngi doon suivre information yi di ko topp comme jotoon ñu tijji ba nii commencé woon umra ñu jotoon def benn déclaration bi wane ne dinañu tijji aj bi pour monde islamique ñu mun a ñëw aj waaye xam naa mbas mi ak nu mu yéegee di wàcc euh, mu di leen permettre pour ñu mun a def loolu moo tax ñu mujjee ko tëj ñu ne ci biir Arabie Saoudi kese lay nekk itam nombre bu limu lay doon mu war a toll ci soixante mille personne ñi nga xamante ne ñoo war a ñëw teewee aju ren ji ñoo yi nga xamante ne ñoom la ñu autorisé Euh, ci état Arabie Saoudi ñu aj teewe aju ren ji kon mbir yi noonu la tëddee mhm. euh, ginnaaw loolu itam ojaat yi ku ci nekk jox nañ la lii bi nga xamante ne fa la ñuy taseeg yow mhm. bu njëkk yéen ñëpp jaar ngeen ci aj ni ngeen ko xamee mooy ojaat yi bu ñu jógaan Médine mhm. dañuy def direct màkk waaye ren ji dafa am ay lii yoo xamante ne fa la ñuy jubali foofu noonu bu ñu fa àggee ñuy soog a dugg màkk man mii di wax ak yéen euh, sama rendez-vous jidda la woon. Mm-hmm. jaar naa fa def ñaari fan soog a dugg Makkatal Mukarrama pour def sama umra. Mm-hmm. ci ki nga xamante ne day def xaju wala tawaaful mm-hmm. nga xamante ne day def xajul ifraat. léegi balaa ñuy ñëw ci euh, manaasi yi. dama bëggoon laaj ndax yéen ñi nga xamante ni bii dañ leen dañ leen sélectionné dañ leen a tànn ndax dañ leen a li li li aju ci wàllu santé yëpp dañ leen ko defal seet seen wér gu yaram Euh, ndax yooyu yëpp dañ leen ko defal ba pare wala wala dañoo tànn noonu rek. waaw loolu loolu yooyu noonu yëpp dañ la koy defal ginnaaw bi ñu la sélectionné ba ñu jël la. Mhm. ba fi nga war a jaar yëpp nga jaar fa. Mhm. yooyu yëpp dañ la koy defal. li mhm. ci njëkk mooy ku ñu xes ba tànn ba pare. Euh, ba sa carte génn. li ngay njëkk a def danga nga am tasrix pour xaaj mm-hmm. li ngay njëkk def mooy nga dem ci poste de santé bu la njëkk a jege mm-hmm. nga jël euh, deuxième dose pour euh, vacciner covid bi mm-hmm. daanaka boo ko jëlul bu dañ lay may lu mut quarante huit heures boo jëlul euh, vaccin bi dañuy annuler sa kii bi sa place bi jox ko keneen waaw kon ñoom ñoom dañoo dañoo taxaw ci ñàkk bi des aussi ci wàllu ci wa ci wàllu ci wàllu ci wàllu ci wàllu santé bi itam bu ñu jógee ci ci wàllu ñàkk bi yu mel noonu beneen bi teg ñoom teg nañu ay mesures barrières yoo xamante ne ku ci nekk ci audience yi dang koy da nga koy respecté. Mhm. dèjà balaa ñu lay jox sa kii bi da ngay da da ngay accord ne mhm. yooyu yëpp dina ko dinaa ko respecté comme lu mel ne saxoo euh, di tak sa masque mhm. ci lieu public yi ci tout taw aj bi yëpp en même temps aussi euh, gel yi booy dugg ci tente yi ak booy dugg ci place yi nga xam te ne fa lay audience di nekk di di dajale Euh, boy dugg ci bis bi aussi dañuy xol sa temps yaram mhm. boy dugg ci place yi itam comme nonu lañuy def kon donc médecins aussi ñu ngi and ak nit ñi ci mhm. mo xam muna mo xam fii arafat mhm. mo xam place yi ñu nekk yépp ñu ngi gis médecins yi suñuy wet ñuy saytu lu jëm ci wër gu yaram ujaat yi demb demb mo nekkon yow mu tarwiye ci yeen demb demb da ngeen dem demoon ngeen muna wala da ngeen desoon makka ba waxtu jot ngeen arafat rek waaw ñu ngi jógee makka barki barki dembu ci ci guddi presque ay trois heures du matin. Mhm. la ñu la ñu génn Màkka. Mhm. comme ni ko Oja ci daan defee ci mhm. septième jour bi ci guddi gi. ñu par dem. ñun aussi ay trois heures du matin la ñu jegee Màkkatal Mukarrama ñu jubali fi nga xamante ne mooy euh, mun na. daanaka dañ fa àgg tuuti rek euh, julli fajar jot. fa la ñu julli fajar démb. Euh, fa la ñu yendu démb aussi. julli fa tisbaar takkusaan timis gee wàññi comme ni ngeen ko xamee ci aj mhm. nga xamante ni yonent bi salaa salaam noonu la ko defee woon ci mu mhm. tarwiya muy juróom ñetteelu fan wi mu génn nekk mina wàññi fa julli mhm. ba fajar eh, bisu arafat bu mu jullee fajar ba jant fi génn muy soog arafat noonu itam lañ ko defee aju ren bii kon tey ji yéen tey ji fi mu nekk nii ngay waxanteeg ñun yow yaa ngi ci arafat waaw man maa ngi maa ngi fii ci arafat yegg si nañu arafat depuis euh, ñu ngi quitté muna Mm. presque euh, six heures du matin la ñu fa jógee fekk na jant bi génn comme fan yi euh, waxtu bi ci Arabie Saoudi jant bi ay teel a génn mm. presque bu ñu jullee fajar quatre heures et demi mm-hmm. quatre heures trente deux euh, presque cinq heures et demi jant bi ay daal di génn di mm-hmm. jant bi di génn rek ci la ñu mais def nañu organisation bu am solo itam ci liggéey bi mm-hmm. nga xamante ne ku ci nekk fi nga nekk da ngay am sa numéro ujaaj bu ne dafa am numéro mun a am numéro am Arafat ak yëpp te itam ah, da ngay jékki-jékki te sa téléphone ñu envoyé la message ñu ne la demal dugg bis nangam bo génnee da ngay fekk bis bi taxaw ci porte biñ la wax ci message biñ la envoyé nga dugg euh, mu nekk loo xam te ne lu ñu organisé la boo duggee mu yóbbu la direct aussi nga àgg mun a ànd ak yi ñuy talbiya di wax la bayka ba nu ñu àggee fii ci arafat tabarakallah légui kon ñi ñi ngi fofu commencé julli ngeen tisbar ba pare aywa euh, biñ fi yegsee daanaka uh, ba ujaat yi ñu jox leen daanaka mën nañu wax ne li ëpp ci ujaat yi. Mm-hmm. daanaka teel nañu àgg Arafat ba wala ñu ndékkee. Mm-hmm. dallu nañu ba ay boori dix heures. Mm-hmm. ci ci heure fii am na ñoo xamante ne sax jotuñu xaar dix heures. ay diggante huit heures et demi neuf heures commencé nañu génn. Euh, jubali fi nga xamante ne mooy masjidu namira mhm. nga xamante ne sax na ci histoire borom téere yu bëri indi nañu ne yénente bi foofu la defee woon xutbam euh, imam bi itam fa lay defee xutbam chaque mhm. année mhm. euh, audiat yu bëri jubal foofu noonu ñun itam yàlla may nañu ba ñu dem teel fa àgg balaa dix heures ñu bokk ci ñu jullee ci biir jàkk ji teewlu xutba imam itam comme niñ ngeen ko xamé bisub arafat mhm. dañuy bolé tisbar ak takusan nek ñu julli ñaar rak ginaaw bi imam xutbe ba bari mhm. ñu noddu euh, ñu lixaam mhm. imam julli tisbar pare ñu lixaamaat ñu julli takusan bolé ko xekma bi taxone yeenent bi def defoon loolu itam moy li yenn borom xam-xam yi tudd ñu mun am waxtu wo xamantene dinañ ko passé ci ngir ngeneeru bis bi yomul arafat yok ci tok di ñaan Mm-hmm. wéetal borom bi subhaanahu wa taala mm-hmm. tawat ko soxla yeeg aajo yi mm-hmm. kon donc julli nañu tisbaar ba saan ba pare ujaat yi ñun ñu ngi nii ci yoon bi nii presque man àgg naa fi ma jëm jubali ba booru jabalu rahma ñi nga xamante itam dañuy dellu ci seen tante yi toog ko ñaan dellu ci seen yi mbooloo mu bëri nag mu ngi jubali fu mu ne nii muy jabalu rahma pour dem taxayu foofu ñaan borom bi subhaanahu wa taala ak moom. oustaz xam naa ni euh, defal nga ñu benn euh, résumé bu am solo ci aj bi. Hmm. ñu ngi ñu ngi ñaan nga ñaanal réewum Sénégal. waaw oustaz. Hmm, xam naa balaa ñaan dama bëggoon am ñaari question yu ndaw rek. yu ma ko hmm. laaj foofu. Euh, ndax dañ doon wax problème mu âge. maanaam na âge bi ñu 60 ans lañ waxoon ni moom moo ci waree aji ndax loolu lañ maintenir ba tey. waaw euh, loolu dañu tegoon dañu bindoon benn fichier fichier xam naa yor nañ ko ci PDF. Hmm. biñ ko liiree. Hmm. loolu 60 ans yi dañ ko tegaloon pour ujàcc yi waroon a jóge bitim réew. Hmm. mais après comme loolu mu jiwut am. Euh, ñi nga xamante ne ci biir réew mi la nekk fii ci biir Arabie Saoudi. âge euh, bi ci gën a sori mooy cinq ans. ku appal 65 ans duñu autorisé nga aj kon donc ñu koy xaaj ay xaaj 60 ans ba 65 ans. 40 ans ba 50 ans euh, 31 ans ba 40 ans 18 ans ba 30 ans donc ñooyu mooy xaaju ujaaju ren yi hmm. li ci ëpp nag euh, ci li ñu déclaré hmm. mooy li ëpp ci ujaaju ren ñu ngi nekk diggante 31 ans euh, ba 40 ans hmm. wala 41 ans ñooñu mooy li ëpp ci ujaaju ren jii nii euh, ñu ngi toll ci ñi nga xamante ne duñu ay sawjee ñu nekk ay yeneen nationalité ñoom li ñu ñu ngi toll ci cent cinquante nationalité ñi nga xamante ne ñëw ci biir Saoudi fii euh, fekkee aju ren jii. Mhm. mba mba ndax ràññee ngeen ci comme yow ay sa ay sa saay moromi sénégalais. waaw euh, ba léegi nag gisaguma sénégalais boo xamante ne ñëw na aj mhm. euh, sama bopp rek laa ci xam xanaa am na kenn koo xamante ne dégg naa ko mu ngi université Médine. Mhm. ñu ngi koy wax Julle Thiam. mais ba léegi gisuma ko mais dégg naa ne bokk na ci ñi ñu autorisé ren mu ñëw aj mais gis naa ay yeneen nationalité yu bëre bëre bëri yoo xamante ne am na ñoo xamante ne jot naa xamante ak ñoom hmm. euh, fii ci biir Saoudi euh, duñu ay saoudien ay africain lañu comme fi ma nekk tant bi ma nekk gis naa fa ay mauritanien gis naa fa ay nigérien gis naa fa ñu dëkk Niger ak yu mel noonu hmm. ñoo xamante ne jotoon naa xamante ak ñoom euh, avant aj bi taarkalla Oustaz Mor defe naa ne loolu waaw kay léegi fi mu nekkee nii a li des nag mooy mooy mooy comme yow yaa fa nekk yor fa drapeau Sénégal nekk fa sénégalais bokk ci ñun réew mi fi mu nekk nii soxla na ñaan soxla na ñaan ndax bët yu xonq na ci tiit nañu ci jàngoro ji e, tiit nañu ci wàllu économie bu leen fàtte réew mi ci ñaanal koy tamit nag Oustaz Moustapha Ndiaye mu ngi nii di la dégg Oustaz aywa e, comme ni ko waxee rek Sénégal moom e, bu ñu ko ñaanalee suñu bopp lañu ñaanal Euh, donc euh, suñu fi ñëwee tey jii euh, Sénégal moo ñu yombalal yoon bi ba ñu mun a ñëw. Mhm. ak relation bu rafet bi nga xamante ne am na ko ak Arabie Saoudi moo waral tey doomu Sénégal nekk fi tey jii ba mu mun fee taxaw kon fekkente ne bu ñuy delloo wëllëre mooy li ñu njëkk a def mooy ñu ñaanal réew mi yàlla def fa jàmm. def fa def def sutura. Euh, def ko soppante def ko li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy bëggante mhm. yàlla aar réew mi yi nga xamante ne ñu ngi koy dégg ci yeneen réew yi te neexuñu moo xam ci réewu jullit yi la moo xam feneen mhm. ñooñu ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu aar réew mi ba yàpp-yàpp yi am yeneen réew yi mu bañ am réew bi nga xamante mu am ci bi nga xamante ne mooy suñu réew muy réew Sénégal borom bi subhaanahu ñu ngi koy ñaan ci bisu tey jii mhm. ci bisu Arafat mu def jàmm ci Sénégal sotti jàmm ci Sénégal sotti jàmm ci diggante xeet yi sotti sotti jàmm ci diggante kilifa diine yi so sotti jàmm jàmm ci diggante jullit ñi mu bennet lañu benn bennet la suñu kàddu ndaw ñi yàlla indi ci réew mi ay xéewal yoo xamante ne dinañu mën a toog ci réew mi liggéey am ci terang sénégalais yi nekk bitim réew di sàkku teraanga itam yàlla jox leen ko ba mu doy ñu ko seen réew investir euh, bërëb yi nga xamante ne moo mel moo mel nii mu mel ne TFM ak yu mel noonu ñuy leeral askan wi li nga xamante ne moom la ñu war a xam di leen jox xibaar di leen jàngal seen diine borom ustaas yi nekk ci borom xam yi yàlla taxaw borom xam yi taxaw ustaas yi waaye taxaw groupe yu mel nii ba toujours li nga xamante ne mooy soxla askan wi mm. tey ji askan wi soxla xam li xew ci Arafat ñu def euh, euh, seen téemtalaay kàttan ba ñu mun ko jottale askan wi ñu ngi leen di ñaanal ngeen yàgg fi ngeen am avancement bu rëy ñu fay liggéey itam yàlla dénk leen sutura dénk leen teranga ñu ngi ñaanal Sénégal euh, di ñaanal réew mi di ñaanal mbokk yëpp di ñaanal mboolem jullit kilifa diine yi mag ñi ñi nga xamante ne génn nañu àdduna jiitu nañu way dawli yëpp yàlla yërëm leen te jéggal leen képp koo xamante am na mbokk bu génn àdduna yàlla ko yàlla yërëm te jéggal ko te xare aljana képp koo xamante ne tawat na yàlla na ko yàlla saafara képp koo xamante am na njàkkare yàlla na ko ko yàlla teggi képp koo xamante ne na tiis yàlla na ko yàlla woyofal képp ku yor jàngoro ci bisu arafaat tey jii ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu saafaral ko ko mu may ko wér may ko tane ñu ngi leen di ziyaar bu baax a baax tok di wax mhm. ana ñu tok rek ko ak borom bi subhanahu wa taala euh, ñu ñaan ko mu nangul ñuko mu defal ñu jamm ak salam ci bir senegal defal ñu bëggante ak sopante ak benno yalla defal ñuko ko ya ba ak ngaayo ak réeroo ak euh, xëccoo do am ci bir réew yalla yàlla ñu ko defal ya mu defal ñu ci jamm jamm yu ñu xamee woon mu nekk drapeau ci aduna bi yëpp yalla na sax ba faw yalla bu ci cat dugg yalla bu ko seytaane yak yalla ñu yàlla musal ci seytaane Omar. ay naam. wa legui fo yow fo dekk fi ci réew senegal senegal Sénégal maa ngi dëkk euh, boori boori Kër Kër Moussa. waaw nuy len nuy len nuyu leen ñu déglu la ñu ngi lay déglu nuy len wa wa ñu ngi ñu ngi len di ñu ngi nuy ñu ngi nuy ngi nuyu waa Kër Moussa yëpp. ci monsieur le maire Momar Cisse. sha allah ba wacce ci village ya yépp ñu ngi nuy wa village yëpp ya waa dëkk ya yëpp. ba mm-hmm. Mbul. sha allah nga xamante fala ci sano Mm. muy dëkku Oustaz Seybatul Hamdi Diouf di nuyoo itam waa waa waa cinquante waa waa Payol waa Xinin macha allah euh, tundum séeréer yi nekk foofu yëpp baax na ci waay mbokk ci ñoom ñu ngi leen di <laughs> ñuy ñoom ñëpp yéen itam ñu leen di jaajëfal ci occasion bi ngeen ñu may ba ñu mun a nemmeeku suñu mbokk yi ci bis bi waaye ñu nemmeeku suñu waa Sénégal ci bis bi nga bañ a fàtte ci ñaan incha allah nag foofu ci barab yooyu waaw sëñ naa Omar xam naa xam naa fi ngay tëjee waaw am na am na xam naa itam am na am naa ku ma bëgg a sant te gërëm ko waaw am naa bëgg moon tudd tur sax ñu ngi koy wax euh, Ali Ali Ali Diop am naa mu ngi nekk boori boori caajaay ñu koy ñu koy ñaanal di ñaanal ñaari woy juróom itam yàlla yërëm leen amiin euh, te jéggal leen ku ñuy wax saa Yaasin a ak ku wax soxna ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ko ñaanal itam yàlla defal ko barke di ñaanal ñëpp itam waaw cheikh bi noonu am na solo euh, bala ngay tëj bala ngay tëj <laughs> li ma doon li ma doon laaj rek nga xam ni moom mën nga koo tëjewaale euh, moo di moo di moo di nationalité yi nga xam ni ñëw nañu foofu xam nga da am invité roi bi waaw doon am invité roi waaw naa ne ren kon xëy na loolu loolu loolu defuñu ko ren de. waaw loolu loolu loolu nemmeeku ñu ko fenn fu ñu ko waxee ci seen information yi donte que ñu ngi topp information chaque jour. au niveau ministère aj bi mais waxuñu ko fenn comme ni ñu daan éviter ñu ay. évité évité di ruwaa ñu jóge ay réew yu fasantu ko ci réew yi lislaam yi ñu ñëw loolu gisuñu ko fi ren daanaka ñi fi nekk di liggéey wala di jàng wala yu mel noonu hmm. ñooñu daal nationalité yi nga xam ne bokk nañ ci aj bi ci yooyu lañu la bokk tabarkala yooyu bokk tabarkala léegi fi mu ne nii ban waxtu ngeen yor euh, fu mu ne fu mu ne nii julli nañu tisbaar ba ñu ngi ci treize heures quarante sept Mhm. Euh, daanaka fu mu ne nii moom li def mooy ñaan wéetal borom bi subhaanahu wa taala mhm. euh, defe ko itam comme ni ko yénte bu waxee euh, ñaan bis bi gën ci bis yëpp mooy bisu arafat mhm. waaye li gën ci li ma musa wax man yeneen yonent yàlla Muhammad ak yonent yi ma jiitu muy laa ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in waaye ñaan bi gën ci ñaan yi mooy ñaan ci bisub arafat Mm-hmm. kon ci loolu la ñuy nekk fu mu ne nii comme julli nañ tisbaar ak tàkkusaan ba pare mm-hmm. timis incha allahu rabbi ak geewe dañ ko jullee arafat même buñ bu ñu fi fekkee mm-hmm. dañ koy yeexe ñu jullee ko fële ca musdalifa incha allah bu buñ fa àggee fa isa afatu min arafatin fazkurullaha indal mashar al haram kon donc li ñu dese arafat nii rek mooy taxaw euh, ñaan ñaanal njaboot yëpp ñaanal euh, réew mi ñaanal dëkkandoo yi tey jii euh, ku déglu xutba imaam dañuy gis ne xutba la boo xamante ne. Hmm. mu ngi aju ci li jëm ci wàllu rafetal. léegi Omar sa diggante sa borom. Omar aywa naam Omar léegi aywa naam léegi dama lay dama lay dama lay bàyyi. Euh, ndax dama su ko defee ma coupé léegi sama waa T waa TFM dinañ la woo léegi. buñ buñ la woowee nga am alaaka bi bu ko defee nga mën a. détaillé ak ñoom li aju ci wàllu xutba imaam bi incha allah. incha allah amul benn problèmeamul benn problème tudd Maawo Cissé dina la woo léegi incha allahu taala Mm-hmm. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf voilà ñun tamit bëgg nañu lool bëgg nañu lool disponibilité bi defal pour réew mi yëpp ñoom ñoom ñu xam fi euh, mbir yi toll wallaay euh, disponibilité bi moo tax ñëpp kontaan nañu amin amin amin amin amin amin Hadj Omar amin Hadj Omar amin amin merci beaucoup jazakallah waaw kay Hadj Omar euh, Faye foofu ca Makkatal Mukarram ca Jabalu Rahma sëñ Mamor defe naa ni lii rek doy na liggéey mooy mooy mooy Jabalu Rahma mm-hmm. Oustaz Mor defi pexe ba nga xam ni kafane moo wax la fa xew Euh, te loolu di lu rëy rëy allah waaw sëñ sëñ Moustapha Ndiaye bay la. moo ko coordonné moo ko coordonné. waaw tabaarakallaahu mu am solo lool ndax foofii muy wax ci jabalu rahma. waxtu wii tembe gaa yëpp a daan wàccandoo wuti ko. wallaay ndeysaan waaw ndax yañ ca wax Oustaz moor dana ci ñëw. yonentu bu ne jaar na fa te sunu maam aadama ba ci yonentu yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam yonentu yëpp fa jaar muy barab bu yéeme Oustaz Mor waaw xaaj xam nga xaaj Mamor. Eh, dañu war a sant yàlla mais sant suñuy kilifa. dëgg la. dañu war a sant yàlla. ñu sant suñuy kilifa. ñoom ñi nga xam ne ñoo ñuy jiitu ci yoon wi. ngankal nu ko nag ngankal nu ko. geg ko. protéger ko. ba yàqkat yàq ko ñu defar ko ba mu ñoŋ ñu tegal na ko fi ñu ñëw ñëw jël ko. dëgg eh, loolu loolu dañ ciy sant suñuy kilifa. alhamdulilah da ngay xool eh, tey jii. sama xol bi ak xolu njaga ak sa xol ak xolu yeneen jullit ñu ngi mm-hmm. ñee mm-hmm. nim se woon doon am Omar Faye ca foofa mm-hmm. dégg nga moom it mi ngi koy def mais mi ngi wane ni ab sénégalais la bu nga xamante ni bii Sénégal am na lu mu ko lebal war na nekk seen bët fii tabaarakallah te gis nga nee na nee na moom ak keneen rek la yëg ci ñu xamanteni bi am nañ autorisation pour mën a pour mën a def loolu loolu nag dafay wane ni Sénégal alhamdulilah mm-hmm. Mm-hmm. yal na yàlla euh, sàmmal ñu suñuy mag fay leen fayal ñu leen yiw yal na yàlla sàmmal fayal ñu leen yiw Sénégal dañoo bëgg dañoo bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ku ci ku ci dem di aji màkk sax mm-hmm. du nangoo wax ni damay aji day wax damay dem ziar ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu liggéeyu mag ñi la loolu liggéeyu mag ñi la donc kon moo tax euh, ñu ngi ñu ngi bëgg bu baax ci ci ci ndimbal ndigalu Oustaz mhm. ci la ñu amee numéro mbokk bi ba mën a jokkoo ak moom moom tamit mu disponible mhm. moom tamit mu disponible xam nga jamono bii nii ku génne ci jàkka ji julli mhm. ak foofu ku ko xam xeer yaak tàngoor waak mag ma ak jamono bi nga xamante ni bii dafa nekk jamono xat-xat sax waaye niñ leen di organiser parce que léegi maa ngi doon suivre seen julli bi directement Euh, di ko suivre ci net bi. Mhm. xutba imaam beeg julli tisbaar beeg. Mhm. takkusaan bi yooyu yëpp maa ngi ko doon suivre. Euh, mais pour wane ni euh, disipline bi ak ordre bi macha allah. am na solo léegi nag loolu dañ ciy sant yàlla yàlla may nañu dem nañ fa waaye ren. Mhm. yàlla xatal na jamono. bu déwénee nii ñu àndandoo nii defandoo plateau bi. nii yàlla nañ ko defee foofu. amiin yàlla nañ ko defee ñu naan ñu defandoo. amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin defe naa ni yow mi nga xam ni yaa coordonné ak sëñ Omar. waaw eh, tabaarakallaaw ci taxawaay bu mel noonu. Eh, muy bisu Arafa. te barab boobu ma wax léegi. Mhm. di jabalu rahma mu dëgmal ko noonu. indi mhm. ñu ci say kàddu. salaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu di nuyu auditeurs RFM yëpp rek fu mu ne ci àddina ñu ngi leen di nuyu ndokkeel. di leen ndokkeel di leen tax ni ab baax nag ci bis màgg bi ñu nekk muy yow Arafata nga xam ne mm. bis boo xam ni yonent bi alayhi ko ci benn bis mm. ndax nee na mooy bis bi gënal yàlla ci kaw suuf mm. mooy bisu tay bi kon nag danañ sant yàlla waaye dañ sant nag ku ñu wax Taalib Cissé ab Taalib Cissé moom tam étudiant la ma nga ca ma nga ca ma moom tam li yàlla dogal na amul accès da ngay am tasir soog mën a dem ustaas mu xam ne tasir ya fa am autorisation pour mën a dem Màkka ñëpp dañ fa dem 2 millions ngay ngay ngay jënd tasere bi. Hmm. même étudiant ñëpp moo ngi ko jënd pour mën a accéder accéder mag donc kon ñu ngi sant Cissé santam nag suñu mbokk ñu àndal daaw muy jaawara. xam nga ren moom amul tasrix mënut a ah, dem foofu waaw day mat a bàyyi xel daal hmm. daaw ñoo ànd liggéey bi ren yàlla dogal mënut hmm. euh, <laughs> a am ak a a seeral ah, parce que daaw amoon na amoon na ay quelque lu mat vingt cinq personnes sénégalais ay xale yu demoon waaw mais ren moom dafa mel ni dafa xaw a gën a metti xaw ma mbas mi gën a mm, yëkkati ko xaw ma nu mu demee noonu mbas mi xam mbas mi dafa dafa jógaat waaw mm. waaw fépp la jóg ci àddina bi du Sénégal pare daaw ren 2 la mm. daaw ko woon donc lim bi gën naa bari ren mais doon na condition gën naa tar gën naa métti ndax fi ñu toll daanaka pour nga accès rek ci kaaba kaaba goom coow coow tawakal naa bi moom yaakaar naa <laughs> sëñ Mor tawakal naa exactement defe naa ni bisu arafa bi uh-huh. nga xam ne tabaarakalla yàlla na leen fa yàlla yóbbu amiin yaa rabbal alamin dina metti ci yéen hmm. yéen ñi nga xam ne mosu leen faa teg tànk hmm. mais nun ñi nga xam ne xam nanu comprendre nanu xam nga loolu tam day ñaari yëg-yëg effectivement waaw wéetaay wi ñu wéet hmm, ndeysaan wi ñu wéet ak bis bi daawu la fi fekk fi mu ne da dem ba ay ay tëbaskeek yu demee nii sax bu ñu koy wax sa bopp sa nopp yi day riir parce que deman nga ba da nga koy fàtte sëñ moor taxawaay bii bésu tey bii nga xam ne bésu ñaan la bésu ñaan nag war naa faj aajo sëñ moor yaa ngi may dégg bu baax maanaam xawma loolu nag di yéen a koy séddoo yéen borom xam-xam yi yéen a koy séddoo ba xam mhm. lu tax lu tax muy demee nenn ni mhm. te ñu am ay possibilité yu bari. Mhm. Saas Mor eh, eh, sëñ Mor Thia eh, Mor Maam Mor Mbacké. jërëjëf Xaasi Ndiaga maa ngi lay ndokkeel bu baax a baax di gërëm Oustaz Mor ci dalal gi ci mbokk bi. di la fàttali ni waa Masalikul Jinaan. sëñ mhm. Samba Diaw ma ngi noonu. ñooñu tam sëñ Muntaxa dafa dafa joxe ay limi alxuraan. Mhm. war ko ñaan sottiwaat ko ci réew mi. dëgg la waaw sëñ Samba Diaw Masalikul Jinaan. macha allah ñu ci ñëw léegi. di gërëm Oustaz Mor ci laaj yu am solo yi ndax. Euh, tax na kilifa gi nga xam ne moo fa nekk daanaka ñun ñi nekkul màkka mel na ne ña nga fa. Euh, mm-hmm. ndax saa seetembe xam nañ la fa xew. ak euh, mboolem auditeur buy déglu RFM may gërëm sama xarit bi Oustaz Moustapha Ndiaye <laughs> macha allah moom boo ma mere yow yow kenn ci man nga man ci yow laa yow itam ci man nga <laughs> bu ñu waxtaanee rek ñu juboo incha allah. Asi Ndiaga ni nga ko waxee am na solo xam nga suñu borom subhaanahu wa taala dafa bëri yërmaade. Mm-hmm. bëri gi mu bëri yërmande moo tax yërmande mi yaatu lu ne itam manis na cee sàkku yërmande suñ borom subhaanahu wa moo xam lu ñuy tuddee farata moo xam lu ñuy tuddee sunna moo xam lu ñuy tuddee manduub moo xam lu ñuy tuddee mu baax donte li dagan rek la nga xam ne jàpp nañ ne amul ba amul bàkkaar waaye manis na cee sàkku yërmande suñu borom subhaanahu wa bu ñu fàttali aaya yu fasantikoo yàlla mi ngi ciy diggee ñu sakku dem di wax ne itam daganul sax ci benn julit muy nagu ci de suñu borom subhanahu wa taala wala tay asu min rawxillah innahu la yes min rawxillah illa alxawmu kafirun fa bima rahmatin min allahi linta lahum ولو kunta fassan خليز xalbi lan fado min awlik faafu anhum wastaxfir lahum la ca topp xëy na day laaj. ci beneen contexte. wa saawirhum fil amri donte Sénégal sax toll na foofu. Euh, mu waxit itam ne boleen naa ko ci sama yërmaande man yàlla. ndax man suñu borom danaa leen jéggal seeni bàkkaar yépp dafa mel ne dañ ko laaj lu tax mu ne man maay jéggalaakoon bi maay yërëmaakoon bi. léegi nag bu loolu jàllee doomu aadama bi war a xam ne bi ko suñu borom defalee xéewal mu doonub jullit lam war a njëkk a ittewoo xam ci yan ci ci yan yoon la war a jaar mhm. buy sàkku yërmande yi suñu borom subhaanahu wa taala fan la ko war a sàkkoo lan moo dox digganteem ak boroomam lan moo tax lan moo dox digganteem ak mbokkum jullitam lan moo dox digganteem ak mbokkum deretam lan moo dox sax digganteem ak dëkkandoom bi nga xam ne du ab jullit loolu lépp doon loo xam ne lu doomu aadama bi war a xam la comme ni mu waree xam lii nga xam ne moom nga ma laaj léegi nag xam googu mooy moo tax ñu toog fi mhm. moo tax Oustaz Mor Thiam toog fi moo tax ma toog fi ngir jàng mhm. moo tax Oustaz Oustaz Moustapha Ndiaye toog fi ngir jàngale mhm. Oustaz Mor toog ngir jàngale yow nga toog ngir jàngale man ma toog ngir déglu ci xam-xam boobu moo tax ndax Serigne Touba da doon wax ne képp kuy jëf nee na te sa jëf jooju tegoo ko ci xam-xam nee na jëf ji day tasaaroo nee jëf ji dafay tasaaroo maanaam dafay niil ak lu jëf ji rëy rëy ndax bu ñu fàttali ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ki am xam-xam te jëful sax moo gën ki amul xam ba noppi di jëf loolu alayhi moo ko wax sëñ Tuubaa jàngal ñu ne euh, kon tegoo ko ci xam-xam na say jëf day tasaaroo mu tekke ne ku am xam-xam sax ku euh, am xam ba noppi te jëfewoo ko nee na dafa mel ne mbaa mu safay téere الذي لم يخشى رب العالمين waaw laysa bi aalimin walaw afna al funun waaw ba tey ba tey mënees na koo firee loolu mu teg ci itam ne ku am xam-xam ba noppi di ko jëfe te tegoo ko ci te tegoo ko ciy teggin nee na fitna la lay jural lu ci nekk bayit yam man la man maa préféré wax ko ci wolof rek mu reer beneen bi ci topp itam mu ne ku am xam-xam di ko jëfe te teg ko ci ay teggin loola mooy sàmmal nit ki mooy tax ñu tuddee ko nit ku mat ki maanaam insaanu kaamil léegi na kon mu mel ne kon xam mënta ñàkk ci dara ak lu mën di doon yaaram euh, <laughs> waa acca ñu ñu ñu dem eh? te ñëw. Eh, euh, lii lii moo waroon a doon nag tey tey da Mor Mor tey danoo a taxaw déconné nag tey da tey laa tey lañ war a déconné. def ñaxtu <laughs> ñu dalal ko. non Assane Gueye wala Babacar Fall laa bëgg a déconné ñu ñu déconné ndax tey moom bisu ñaan la waroon a doon. tabarakallahu mbokk yi eh, ñoo ngi ñëwaat bàyyi rek mu ñëw ci brève yi incha allah ñu dellusiwaat ak fi ñu tollu woon asalaamaaleykum Georges. waaleykum salaam defe naa tey tey bésu ñaan la mhm. bés la boo xam ne bu am solo la ci àddina bi mhm. pour yàlla ndax bésu arafaat yàlla da ciy wàccee xéewal mhm. euh, dama lay bàyyi rek nga ñëw ci brève bi xëy na euh, waaw loolu yëpp comme bésu ñaan la waaw nañ ci nañ ñaan lépp lu baax ndeysaan boole ci itam ñaan ngir mbas mi jóge fi mu dem waaw mu dem mu dem daal ndax yokkute bi daal euh, ëlëm na ñëpp te tiital na ñëpp waaye nañ ñaan yàlla yàlla mi mën lépp xam naa dana ci def. Euh, incha allah dana ci def lu baax. jërëjëf oustaz Ndiaga jërë jëf mbokk yi auditeurs yi flash info bi dañ koy door rek euh, mbas mi juróom-ñaari nit ñoo ci ñàkk seen bakkan euh, démb euh, fanweer nit ak ñett nag ñoo nekkee Sowetas jamono ji ci test yi ñu def ñaari junni ak ñetti téeméeri test ak juróom fukk ak juróom-ñaar juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ñoo ci positif juróom benn fukki ka contact ak ñaar benn ka emporté am na cas communautaire nag ñu ngi toll ci juróomi téeméer ak fukk ak euh, ñaar euh, waa kër docteur xamal ñu ne ñaari téeméeri nit ak euh, fukk ak benn wër nañ ci feebar gi jamono ji nag ñi ñuy faj kër docteur wala seen i kër ñu ngi toll ci juróom-ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukki nit ak benn ab accident ca Malem uh, Kiriñ ca uh, département bu Malem Hodar ñaari uh, nit ñoo ca ñàkk seeni bakkan ab bus ak ab tracteur ñoo mbëkkante accident baa ngi xew borog 5 heures du matin apprenti bus bi moom jamono ji sonn ña ca jële ay gaañu gaañu yóbbu nañ leen ca l'hôpital bu kafren police bu Mbour euh, ñu noonu xam leen ni danañu janook taskatu xibaar yi loole nag euh, ngir euh, joxe xibaar jëm ci ni ñu teg loxo kenn nit ki nga xamante ne dañoo njort ne moom moo mbëkk policier bi di agent Samba Biaye mu ñàkk bakkanam week-end gi la woon jamono ji nga xamante ne dafa bëggoon contrôler oto waa joojee nga xamante ne dafa mujje woon daw ay billet noir coupure euro euh, ñu xayma ko ci 184 euh, millions de francs CFA euh, moom la douane bu Ziguinchor teg loxo kaka yoroon di ab nit ki nga xamante ne mu ngi cosaanoo Guinée la beneen saisi bi nag yàmbaa 637 kg bu yamba euh, ñu ngi ko tege ca Mao ca Kuta, ak itam ca kër euh, Bouki ca région euh, bu Fatik gendarme wa douane ñoo teg loxo yamba Goge. collectif René Sanchez pour la sauvegarde du stade Assane Diouf di fàttali njiitu réew mi ab ndax atub 2016 ba léegi gisuñ dara lu yëngu ca site ba ndaw Ndakaar yooyee ne dañ leen def bëgg dañoo bëgg ñu delloo leen seeni stade nous déglu kenn ci ñoom di Papis ñang bokk ci collectif Youssouf pour rappeler président promesse bi ñu digoon donc promesse du moo doon lan à la jeunesse dakaroise parce que moom ko l'avait dit en conseil des ministres décentralisé 2016 donc y ñu toog de ak yëngu-yëngu comme quoi que bon dañ trois parts chinois ben on a refusé loolu moo waral suñu point de presse bi pour ne ko gor ci wax ji daal. Mhm. ben bien sûr parce que comme je dis, son PM a fait une déclaration premier ministre fait une déclaration pour dire que état bi dinañu ko à plus de 20 milliards. bon son ministre son ministre des sports est venu faire la visite des lieux avec euh, les autorités administratives donc yooyu yëpp jot na fi am donc ñun kon ba léegi dañu jàpp ni rek bon la mu wax moom mu nga ci Le plus ko def. lan moo bees ba euh, ni était nécessaire ngeen le président promesse mais lu li ma wax rek première pierre sur la en échange parce que en principe il devait y avoir huit tours sur le site. Bah, c'est ce qu'ils ont prévu finalement ils ont pris les quatre pour l'amener euh, sur le site de Carl l'ex ministère des infrastructures une partie bon beneen partie bi ñu bëgg ko bàyyi fi ñun nag loolu la ñuy ñaxtu ba léegi ñun li ñu bëgg rek dafa simple yomb na c'est très simple c'est que on nous restitue le Sarasane bi syndicat technicien ak travailleurs agricoles du Sénégal di amal seeni assemblée générale euh, ci suba gi ni ca ministère de l' agriculture fële ca Diamniadio ñu ne nag ci ab communiqué ndaje boobee la cay topp moo di grève de la faim te euh, ci ndaje boobee la ñuy jël dogal ñoom syndicalistes yi décrété fukki fanu gerew tàggat yaram euh, Guédiawaye football club mooy champion bu Ligue 2 gannaaw bi ñu eggee ci ñaar fukk ak juróom-benneeli euh, journée bi mu di journée bu mujj bi sax Guédiawaye football club euh, dafa dóor. stade euh, Guédiawaye football club Mom dal euh, mo jël ndam démb ñetti bal ci ñaar ci match bi nga xamantene mom lañ doon mujjé def ci championnat bi euh, waa Linguère ñom mi ñu nekkoon ca boppuk championnat bobé dañoo mujjé ñak ci tapis vert ñom wa Kër Madior lañu ñu won yéene woon footballal waaye ñoom waa Linguère dañoo faté won seeni licencié ci Saint-Louis yeneen xibaar ci yaatal grand journal ci kàllaama français ak Souleymane Niang bu 13h jotee ci wolof lay doon jërë ngeen Publicité sur RFM. tabaski ñëwati na ak orange money ci tombola bu mag bi and ak ay xéwalam fi ba le 19 juillet képp ku nduggi wala nga def bépp achat ci Auchan hypermarché exclusif Carrefour Supeco wala sax ci station EDK yi fayee ko ak sa code marchand Ma QR code orange money mën nga bokk ci 25 clients yi ñuy rembourser seen achat ba 25 000 francs CFA bés bu ne kuy fay ak orange money am nga mbégte wu tabaski waay Orange Money daal weesu na calpé? Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal Orange. Anticipez votre rechargement rapido pour la fête de Tabaski du 19 au 23 juillet. Rechargez votre carte rapido à partir de 5000 francs CFA et gagnez 30% du montant rechargé chez nos partenaires Orange Money, Wave, Free Money, Weasel Money, Yop. Cash Cash, Wari et Zulupay. Sur les bornes digitales Rapido et Yotali et dans nos espaces clients Rapido et sur l'application mobile sous nos autoroutes. C'est sans frais. Alors n'attendez plus, rechargez Rapido. tabaski balaa neex nga jaar kabi rek eh. si Cabirex du 9 au 19 juillet ngir tout promo pour xeewale Cabirex indil na split frigo congélateur yu amul installation 8, Dolen Faidara. congélateur Aztec 600 litres à 320 000 francs CFA réfrigérateur Ayer 300 litres à 330 000 split continental en cheval à 160 000 francs Smart TV Android 49 pouces à 259 000 francs REC cuisinière inox 4 feux à 139 000 francs nga mën a la bi gagné yu amana maanaam len di xaar ak rond-point Sacré-Cœur boulangerie jaune wala ngeen jot whatsapp 77 800 0030 ak facebook et instagram kabirex yes your electronic destination ay mbokk yi wuré wa dem na këng tabaski jot na ba pare ñaari xale yi ak ñoo mën li ñuy def gis nga père xale muy tëkku waaye magamay daan ba mu sotti rek moo grand yamal xamal ni xontu xale lépp ci xontu bala tu da ngay xontu xontu lu yow ba tabaski yow de bu way mbee sax doo ko tey Enema Sanders moo dooleel ñaari xale yi Enema Sanders mooy xaritu éleveurs yi moom daal mooy dundal jur bi dama ne tabaski soreetul def leen ni jaw ak xëccaa aliment xont bi bu mu leen sori benn yoon Enema Sanders mooy seen moomeel di leen taxawu te leen yokk am na xibaar bu neex jóge ci dano bis ki tey dano quotidien 400 grammes bi doon jar 1200 francs léegi wàññi nañu njëg bi ba ñaari téeméer waaw 1000 francs rek waaw 1000 francs kese nga am sa sachet 400 grammes dano quotidien xibaar bu neex ni dano quotidien mësta am ci même réew daw leen gaaw ci seen boutique wala supermarché ngir xéewalu aussi. yéen suñu mbokk distributeur yi mun ngeen jot suñu service commercial ci 76 223 75 36 dano quotidien comme dem ci bi dalal tabaski ren bi dina neex de nga station Shell laa jógee tabaski bi promo bu tot moo fa xew ba le 22 juillet Sa yo jëndee lu toll ni 10 000 francs CFA ca station ba wala lu toll ni 4 000 francs CFA ci bitig ba da ngay dàq sa wërsëg ngir gagné parure bu yanj ay coupon basé riche ay panier ravitaillement ak matériel électroménager teg nak, <laughs> li ñëpp di wër ci tabaski bi. nga ni lan maa la ko wax li. waa ji gagné bi ma fa gis de xéwali sax xajul nag ci otom promo tabaski Shell bi dal. mooy bu baax bi de Shell Fuel Save ak technologie Dynaflex sunu carburant yu gëna xaré Aïe aïe aïe, mon pneu d'occasion m'a encore lâché en si peu de temps. Ah, chérie, ni na la bataille, pneu du quel est le seul qui puisse à la fois être efficace au freinage, réduire ta consommation de carburant, tout en assurant ta sécurité. Ah, rejoins vite les Oasis Elton avec la promo hivernage du 17 juillet au 30 août. Elton mon hand son partenaire Sika Service Jack une promotion Bo amul en t'offrant un pneu pour 3 achetés. Ah, de 3 pneus nous may la <laughs> Elton Et ce n'est pas tout, en plus du pneu offert, profitez des remise imbattable sur le lavage à vapeur Wash Bio Elton et sur tous les produits SICAS. Et ce sera l'occasion de cumuler le maximum de points avec le programme de fidélité Sama Elton. Avec la promo hivernage, je vais rouler en toute sécurité. Shelton, Elton, nous prenons soin de chaque véhicule et de son conducteur. Elton, Le service gagnant. fajar teel nga yeewu fas yéene janub bi waxtu bi jotna nga ngir la yitteel dara gënul nga téye sa Phantom X mi lay yokk audace ak écran 3D AMOLED FHD de 6,7 pouces ci loolu sañsel ba rafet jël sa selfie ak double caméra de 48 mégapixels plus 8 mégapixels Phantom X la Yok assurance ci c'est ambition perfection bi ngay àndal saa booy liggéey bu nekk dina la may nga coytu détail ak fantomix. bi ande ak capteur de 50 mégapixels plus 13 mégapixels plus 8 mégapixels ak objectif de 50 mm, ngir am résultat photo bu mucc ayib enregistré qui dit bu yag un dossier sensible mbaa sa liggéey Fontonix am mémoire bu bu tole 256 giga plus 8 giga bi sa navigation gën ambitieux gën len extraordinaire ak X. RFM, oh RFM, RFM, oh RFM. waaw kay dellusiwaat nañu tabaarakallaahu ci eh, li nga xam ne mooy sunu ñaareelu xaj xam naa di sargal rek mbooleem ñi nga xam ne ñoo ngi déglu Ablaye sunu baay Alaaji Aline Badara Bey tabaarakallaahu nu ngi koy ziar bu baax waaye sunu baay sëriñ Ahmadou Ahmadou Ba Ahmadou Ba di bàyyi maître lii ka ba ak naar ak Lalla Ba noo ngi leen di siyaar te di leen ñaanal bu baax a baax ci bisu tey bi Euh, di wax rek ñoo euh, ngi am fu mu toll woon. Euh, mhm. ci bisu arafa bi sëriñ Mamour Mbacke am fu mu doon daaneele. Mhm. ndax bésu ñaan moom deesu ko caaxaane. Mhm. te tey day bis bopp dégg nañ léegi demoon nañ ca Makka ca Jabalu Rahma foofee ci arafa ak oustaz Omar Faye nga xam ni te te leeralal na nun Makka ren niñ ko defee wan nañu nu bisu ñaan baa ngi nii man nag lenn rek moom laay wax saa su ne mooy naka la jullit di amee yu demee noonu ndax sëñ Mamour dugg na na ci léegi mm-hmm. wax ni yërmande yàlla yàlla nee na daganul ci benn julit ngay xeeb dara ci yërmande yàlla mm-hmm. euh, waaye nag lenn rek nag moom a ci ki xam naa loolu ñaareelu laaj bay lay doon oustaz Mor ñëw ci mm-hmm. yàlla dani sama yërmande dama koo jooyal waaw ah, a dama koo jooyal macha allah maanaam fi ne léeg-léeg ne ca la ko neex naan yërmande yàlla yaatu na yàlla ni <laughs> billahi tey fi nga may xamee ndax inna rahmatallahi xaribun min al muhsinin sama yërmande dama koo jooyal jëme ko ci ñi ñenn ñi mhm. waaye du ñëpp laa ko jëmee mhm. sëñ Mor nga yeggale fi nga tolloon eh, euh, eh, jërëjëf oustaz jërëjëf it oustaz euh, Mor sa sunu kilifa gaa ngi lay nuyu alaaji Mara Dieng sama sëriñ alaaji Mara nekk na la wax fan laa koy fekk naa ngi koy man dama man dama koo nappatu mhm. xam nga nappatu ndeysaan <laughs> balaa jàpp numéro oto bi bu ma romb ma ni 99 01 99 07 di dem ba ba seen numéro boobu rek ma daw kari ko <laughs> waaye tabaarkalla ngoor macha allah dawal kari ko <laughs> boo karee maaraa xam <laughs> mooy sama sëriñ de yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko eh, jërëjëf Xaasi eh, Ndiaga jërëjëf di Oustaz Mor jërëjëf Oustaz Moustapha di gërëm source di ci Diop mi fi bàyyi ko léegi ñi ngi maa ngi gërëm may sami nekk ci digital bi ñu ngi koy ndokkeel bu baax di rafet lu liggéeyam ñi ngi tolloon ci doon tàmbali doon waxtaane yërmande suñu borom. bunt bi ma ci doon ubbi rek mooy fukki fan yi nga xam ne moo gënal yàlla ci kaw suuf. xam nga bu ñëwee weeru koor fukki fan yu mujj yi fukki fan fukki guddi yu njëkk yi moo gën. Mm-hmm. bu dee weeru tabaski fukki fan yu njëkk yi ci weeru tabaski fukki bëccëg yi moo gënal yàlla ci kaw suuf li ci nekk ci njariñ kenn xamul nu mu toll. Mm-hmm. daanaka buñ koy tuddee manis na koo tuddee promotion. promotion nag ku ko wax da ngay wax profito. Hmm. Asi Ndiaga tey boo xëyoon sa téléphone sonné message. nga xool benn réseau téléphonique nee la message ne la tey jii am nañu mille pour cent. Hmm. nga toog rek di muuñ naan ah alhamdulilah promotion am na ba min wi jot. Hmm. doo ci te jëndoo crédit doo ci jëriñu. léegi nag promotion ba la muy tegtale mooy nga profité dem jënd crédit pour nga mën a bénéfice ci. ci promotion bi. léegi nag kon promotion bi ci lañu ñu toll nii bu fekkee màkk ñu ngi ci seen juróom-ñeenteel tey tey jii ñun Sénégal ñu ngi ci suñu juróom-ñetteelu fan. suba di juróom-ñeenteel. léegi nag xaj màkk dafa am ñeenti ponk. xarafa benn la ca. yow mu xarafa yow mu nuurin wa baraka. bisub leer la waaye bisub barke la itam. yowmul xajjil akbar bu ñuy wax xaj dëgg dëgg dëgg dëgg. mooy xarafa. yéen ñi nga xam ne dem ngeen màkk demati màkk gis ngeen na muy demee gëdd gi ko nit ñiy jox ak coono ba fa nekk ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne woon alxajju xarafa mm-hmm. nga xam ne xarafa boo ko deful ajo yow ak ku nekk Sénégal gii toog yéen a bokk yam moom sax mën na laa ëpp bénéfice mm-hmm. euh, léegi nag kon xarafa kañ la mooy suba la tabaski mm-hmm. mooy taxawaayu xarafa léegi nag kon li ñuy waxtaanee mooy wala boog ñun li ñu jàpp mooy ndax bis bi waa Màkka di taxaw rek. Mhm. la ñuy jàppee Arafa ci àddina sépp mhm. wala boog réew mu nekk sa juróom-ñeenteelu fan mooy Arafa. ala kulli xaalin li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi wax donte am nag woote ñu bari mhm. waaye xam nga wuute gi it yërmande la. nit ab jullit du wuuteeg mbokkum jullitam ba tax mu ne maa ngi ci dëgg kee nekkul ci dëgg hmm. loolu du du du mbirum lislaam du mbirum jullit waaye nag xarafa dafa am makaan ak samaan makaan bi mooy makka hmm. foofa rek lañuy ñuy taxawee taxawaayu xarafa amul feneen ci àddina fu ñuy taxawee taxawaayu xarafa hmm. amul benn lieu ci kaw suuf beneen buñ mën a taxawee taxawaayu xarafa bu dul màkkatal mukarrama <laughs> sëñ bi may ma taxawlu ma foofu maa ngi ñëwaat ci loolu nga jàppal ma foofu. waaw ma ma terminé ma terminé maa ngi ñëwaat parce ñaari baat la maa ngi ñëwaat ayca. Oustaz Mor euh, dafa mel ni sëñ bi fi mu toll euh, te nga ko ko daan jàpp tey ñu gis ni weer lii lii sax li ci bokk dafa bari. Mhm. ñu gis ni weer yenn saa yi kaamil day am. jël am maanaam maanaam dina jël. Mhm. xam nga euh, dina dina am koo xam ne dañuy def arafaat ca Màkka. suba ginnaaw suba ñu doog a ñu doog a taxawal bés bi. Mhm. ñu doog a def tabaski. Mhm. kon am na nu am na am na am na loo xam ne war nañ koo ubbi ci boppi nit ñi. Mhm. parce que Sénégal li mu jàpp mooy tey la arafa su suba la suba la tabaski. oustaz Mor tey la arafa suba la tabaski la sénégalais xam. waaw xam nga alaaji euh, dëkk yi dañu indépendant. dëkk yi dañu indépendant. li mënoo li li li li waroon mën a am mooy ñun ñëpp ñuy bokkandoo di defandoo umma islam bi yëpp. Mm-hmm. waaye dëkk bu nekk dafa indépendant. Mm-hmm. Euh, Makka séentu nañu xëy na. Mm-hmm. gis nañu. commencé nañu compter. ñoom tey mooy seen juróom-ñeent. ñun séentu nañu gisuñu ñu def bind ba bu ngeen gisul mottali leen ñu mottali compter tey mooy suñu juróom-ñett. jeex na kon suñu juróom-ñeent pour juróom-ñeent pour wa makka tay la juróom ñent pour ñun suba la jeex na ko am fukk rendi loolu rek mo mu gën am fukk rek rendi inshallah allah mu gën a mm-hmm. mais mais mais bi ci li ci nek oustad Mor mm-hmm. ndax ndax joyele ko ko wa makka dana tax nga am bisu arafa déedéet manam xam nga dafa am dafa am dafa am lu am solo mm-hmm. ñun suba moy suñu juróom ñentelu fan wa makka tay moy seen juróom ñentelu fan sukkandiku nañu ci seen weer gis nañ ko. am na euh, kori daaw kooru daaw la ma kooru daaw jekk am na benn mufti bu ci génne woon benn fatwa di ci di ci waxoon lu mel noonu wane ni euh, dëkk bu nekk dafa indépendant weeram ci la indépendant comme suumu liru uyati yi la ñu wax. Mhm. ba tënkoo ci loolu rek noppalu. leer na su sëñ Moussa Ndiaye. Mhm. waaw ci foofu. <coughs> dafa am ñaar yoo xam ne dafa xaw a jigéen te bokkul. Mhm. mooy tabaski ak taxaw arafa. tabaski ak taxaw arafa du benn. taxaw arafa moom bis ñu taxaw arafa mooy ahlu mawqif ñu gën a bëri loolu saxal comme tey nga xam ne nga xam ne mooy lan mooy lan leer mooy ñiy taxaw arafaat arafaat booy woor boobu bis ngay woor bis bi ñuy ta ñooña di taxaw arafaat arafaat moom ngay woor ndax boo xoolee mboolem ahadis yi ñëw jégg ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di soññee ci ci ngëneelu fonk woog woor ko bis bi ñu taxaw la wax mhm. donc man sama ci sama xam-xam gisuma ben hadith bu wax ni juróom ñent fan ci tabaski mooy mooy mooy mooy mooy arafa mom hadith yi ma gis man mhm. buñ taxaw arafa lay wax ci wor geek ñaan ci tabaski Moustapha moy arafa mhm. <laughs> waaw juróom ñent fan ci tabaski xam xam nga ah. xam nga arafa taxawaayu arafa ah. maanaam sëñ Moustapha li bëgg wax li bëgg a wax mooy taxawaayu arafa wax rek ñoo ko def attention bàyyi ma tama àggal li bëgg wax mooy bu fekkee da ngay compter ni juróom fan la mooy tax mooy mooy doon mooy doon bisu arafa. te loolu la. te loolu la. Mhm. donc kon Sénégal fii du ñu woor tey suba la ñuy woor. bu mhm. dee ci baas boobu la dox. Mhm. bu ñu doxee nag ci baas na bu ñu taxaw arafa la war a woor kon tey ji la ñu war a woor. donc loolu mooy différence boo xam ne il faut ñu bàyyi xel. xam nga sew-sew boobu ah, ñëw ah, ah. su la déggee li nga wax. mooy waa Màkka rek ñoo am taxawaayu arafa amul beneen pays bu ko man a am. déedéet du loolu de. bis ba ñuy taxaw arafa. waaw loolu laa wax loolu laa expliqué. dama ne xam nga Sénégal mënuñoo taxaw ni dañuy taxaw taxawaayu arafa. Ah? ah tey jii mënuñoo taxaw ni dañuy taxaw taxawaayu arafa. waaw màkk rek mën a taxaw taxawaayu. effectivement macha allah moo tax bisu taxawaayu arafa boobu màkk rek ko am. kuy woor boobu boobu daal ci kuy woor itam ca bis booba ngay woor. moo gën a wóor waaye juróom-ñeenteelu fan ba nun ko konte lu nu dara tabaski ga waaw la ñuy dàkki noonu waaye du ñu dàkki. Ah. pour pour taxaw arafa. dégg nga macha lu am solo li mu wax da dafa am lu ma doon leeral. Hmm. Euh, xam naa du sax dafa dafa wuute trop. Hmm. Euh, li ma doon wax léegi tan sànq bi ngay jox Oustaz Mor kàddu gi. Hmm. doon leeral ci makkaan bi ak samaan bi. makkaan bi ma la doon wax ne la màkk la. samaan bi nag mooy réew mu nekk. sa juróom-ñeenteelu fan mooy sa arafa. loolu xalaa kulli xaalin xam nga lu tax boroom xam-xam yi waxtaan nañ ci li ëpp ñi ëpp li ñu saxal mooy juróom-ñeenteelu fan ci réew mu nekk mooy saxara fa li Oustaz Mor doon wax léegi ci wàllu weer dina am tuuti lu ma ci tënk waaye tey jii li mu Moustapha Ndiaye wax bu fekkee bis bi waa Màkka di taxaw xarafa mooy bisu xarafa ci lañ war a woor mhm. waa Màkka bi ñuy taxaw xarafa am na jullit yoo xam ne ñu ngi ci guddi kon ñoom guddi lañ war a woor makka dafa am ñu leen jiitu am ñoo xam ne seen ginnaaw la nekk parce que adduna bi noonu la ko suñu borom binde loolu itam lu mata a bàyyi xel la. waaw ñooñu du wóor bu baax. wax léegi nag kon jullit ñooñu lan mooy seen atte Ah. kon ñoom amuñu araf ñaan ñaan ñaan gaa ngi fa xam nga xam nga ah, xam nga ñaan gaa ngi fa xam nga doxewul noonu sëñ Mor ma ñëw baal ma baal ma sëñ Mor <laughs> foofu boo fi ne boo fi ne kenn ku nekk sa sa juróom-ñeenteel fan mooy arafa day mel ne arafa day amaat feneen déedéet loolu waxuma ko borom arafa du amaat feneen borom màkka rek lay am maanaam arafa jëmmi arafa ci boppam moo tënk ci juróom-ñeenti fan ci tabaski waaw waaw ca màkka neuvième suuru tabaski mooy arafa yaa ko wax amul ca màkka amul ca feneen fépp ci àddina bi fépp ci àddina waaw ku nekk sa juróom-ñeenteelu fan sa neuvième suur ci tabaski mooy san raf mais doo ko màggal loolu mooy li wér xam nga loolu buñ ko ci nga war a woor <laughs> loolu jàngatkat yi dina ci jàngataat ci nga war a woor li ma lay wax ni lu wér la ci nga war woor ci nga war a woor ci juróom-ñeenteelu fan ci réew mu nekk baal ma tey du suñu xarafa loolu moom jàngatkat yi den ci jàngataat lu ah. bare bare tey mënta doon xarafa ci Sénégal suba doon xarafa te juróom-ñeenteelu fan mooy xarafa استاذ مور خمنا ني دهنا لا خمني يغنا ام تي تي تي تي واخ موي اختلاف المطالع باسكو بو بو بو بو بو وير وي فيني تي لا ني كومونسي كونتي وير وي سخال نانكو تي عربي سعودي ني فيننا نيوم ني كومونسي كونتي تاي دي سين جوروم نيت gis nga boo gisee mufti bi doon wax mhm. dafa mel ni scénario tey bii nii moom la moom la jàngale moom la jàngale ndax bi muy joxee dafa joxe diggante altine talaata àllarba noonu la ko noonu la ko tegtalee ci jàngale bi mu ni bu fekkente ni bi altine dafa nekk arafa ca waa Arabie Saoudite parce que ñoom gisoon nañu weer bi beneen dëkk ci maghrib gisul weer wi maghrib kon seen premier jour sen sen sen sen 9 neuvième jour du nek du nek mhm. effectivement du ko nek du nek altiné mhm. kon ñom bu ñuy dañuy sen neuvième jour. manam mhm. légui nak li problème bi musclé fi mu nek laps bi fi mu est-ce que or bi dañ ko leunkelé ak mawqif ba. wala leunkelé wuñ ko ak mawqif ba fofu la coow ah, man ko Mor wax Mor man fi ma laaj wax comme li sëñ Mor wax maanaam dafay mel ni bu arafa jàllee ca Màkka tey. bu subaa beneen pays dafa war a defaat dafa war a def arafa bu amee juróom-ñeenti falam. Hmm. te loolu nekkul. Ah, loolu maanaam li nekk li nekk li nekk. li ma li ma li ma doon leeral. li ma doon waaw oustaz Ba ma ñëw hmm. maanaam euh, bu ñu bu ñu bu ko tuddee arafa. Hmm. Ah, dana am benn waay bu bu toog fële jàpp ni. arafaat bi mooy la nit ñi di def ca Makka. ñooña dañoo toll ci période bu ñuy jaamoo yàlla. Mm-hmm. arafa war ca. arafa war mooy ñu jóge ci barab dem ca barab toog ca barab ba def fa ay ibaada. Mm-hmm. man mii fa nekk loola ñuy def duma ko def. Mm-hmm. ndax maa ngi sol sama yére xëy ñoo sama parfum. ñoom solu ñu yére dañoo tarax laa ñu ci des sol yére te xëy ñoo wuñu parfum. kon ñooña ña nga ca makaan ma. ña nga ca makaan ma mhm. makaan ma benn barab la du fa tuxu du nekk ci beneen dëkk effectivement mhm. du amit ci beneen jour bu dul jour bañ ko jàpp ñoom dëgg la mhm. lii laa bëggoon mu leer maanaam du am beneen jour ca makaan ma <coughs> loolu am na solo non fu mu mën a doon lay lay valable ma ñëw baal ma ma ñëw dama ni arafa ba ñuy taxaw waaw kay arafa ba ñuy taxaw muy nga xam mooy la ñuy wax tey jii moom la ñu jàpp ne mooy bisu arafa. Mhm. nga xamante ni ku aji te loo fa. dañuy wax ne amuloo aj mhm. ajoo sax. dégg nga. Mhm. arafa boobu màkka moo koy déterminer. effectivement. moo tax ku fa ñëw boo feebaree sañu jël ci ambulance yóbbu la nga dem aji. nga teewee nga dem dem teewee ji léegi nag bu ñu jógee ci loolu. arafa màkka déterminé na ko mhm. mais ñun ak màkka mhm. dañoo am juuyoo ci bës mhm. bu ñu wax ni gis suñu weer bi ak ñun bës bi ñu wax ni gis suñu weer bi waaw ñoom bis bi ñuy wax ni gis suñu weer bi bu ñu compté ñoom bësu tey ji mooy seen juróom-ñeenteel ñoom effectivement waaw ku dëppoog ñoom ci seen gis-gis tey jii mooy doon sa arafa. ndax mooy sa juróom-ñeenteel. ku dëppoowul ak ñoom ci gis-gis. tey jii du sa arafa. oustaz loolu laa bëgg a dégg. léegi baal ma tuuti ah, Mamoun baal ma tuuti a dégg laa jàpp ni. ndax ndax man sëñ Mor baal ma baal ma tuuti ma ajouté laa jàpp ni ñun waa Sénégal moo nu ci concerné. tabaski moo nu ci concerné. léegi arafaat moom. Arafat moom jàpp naa ne bu doon juróomi fan sax ñoom ñu di ko def. Mm-hmm. Mm-hmm. ñun bis buñ ko jàpp ci juróomi fan yi mooy. waaw léegi ma ñëw foofu loolu laa jàpp. Oustaz Oustaz Moustapha ba lay ñëw lii Oustaz Mor doon wax dafa am benn baat bu ma ci bëgg a leeral. Euh, xam nga weeru korite korite ci boppam laa bëgg a wax jëmmi korite mm-hmm. dañ ciy wute ak màkk te ku ne xam na ne wóor bisu korite dafa xaraam amul wute. waaw ci ñan la xaraam. woor bisu korite maanaam bis ki jàpp ki jàpp tey mooy foofu laa foofu laa jëm foofu laa jëm woor bisu sub korite dafa xaraam màkka danañ wori tey ñun suba ñu wori gis nga lii problème mu weer la ñuy wax nekkatuñ ci problème mu koor kii daa war a koor ci bisu arafa rek la ñu war a woor wala nangam ak nangam nekkatuñ ci loolu li ñu nekk mooy kañ la xarafa ci la ñu nekk fii senegal tey jii du xarafa suba mooy xarafa parce que juróom-ñeenteelu fan la ci tabaski gis nga problème mu weer Seydina Umar ibnul Xattaab ci jamonoom dañoo mës a weeru koor wi wala weeru korite ñu gis ko ca màkka waaye gisuñu ko ca Hijaas biñ ko waxee Seydina Umar ibnu ñu gis ko ca Yaman waaye gisuñu ko ca Hijaas laa bëgg a wax biñ ko waxee Seydina Umar ibnul Xattaab lan la wax dane bokkuñu benn gox kon ñoom ñi ko gis nañu woor wala ñu wori waaye ñun ñi ko gisul wóori wuñ wóoruñ mm-hmm.

ña ne arafa ca seen juróom-ñeenti juróom-ñeenteelu fan. ñoo ñoo ñoom ñoo ca ngay taa ca ngay barkeelu. effectivement bis ba taxaw ñoom ca ngay barkeelu mais du bokku ak wéru koor wi nga xamni aduna bi c'est international. lool mom xamna yeen borom téré lool lool fuñ koy sukkandiko sëñ mustafa wa fuñ koy sukkandiko moy lool fuñ koy sukkandikoo euh, fuñ koy sukkandiko moy mm. liñ gis ci jangalam yoonte bi alayhi salaatu wassalam ndax lim digge ci ay lim digge ci jégalu bàkkaar mm-hmm. ci atum ren ak atum dëwën ak li ma wax ci ay ngëneel da ko wax ci yow mu arafata la ko wax waxu ko jëmu taasix man ci li ma gis ci ci téere yi ma gis yëpp loolu laa gis yow mu arafata mais yow mu taasi min si lay jë wax yàlla gisuma donc man mooy sukkandiku li gis ci njàngal mi sof wax yow leeral maada tuarifuni bi yawmi arafa bis bi ñu taxaw arafa mooy yow mu arafa ba ñuy taxaw ci ban bis la waaw juróom-ñeenti fan lay doon moom effectivement kay jeex na juróom-ñeenti fan moo mën a doon arafa waaw arafa mënul doon mënul doon juróom-ñeenti lay doon juróom-ñeenti fan lay doon mais nga li ngay li ngay dàkk yow pour di ko woor day fekk nit ñi taxaw ci arafa waaw waaw loolu laa gëm de loolu loolu loolu moo mas di am ah, loolu laa bëgg ñu d'accord ci. loolu moom mas di am. même suñu mag ñi nga xamante ne bi amuñu woon ittisaal ci njëkk boobu. dañ doon taxarri rek di wax ni. tey jii la war a doon. macha allah mais amuñu woon benn bu leer. macha allah léegi nag li ma bëgg a wax man. li li ma bëgg a wax. mooy. tey ixtilaaful mataalia dafa am. effectivement dëkk yi dañoo nekk dawla mustaqilla am seen. indépendance bopp souveraine bopp. di wax ne weer wi feeñ na ci nun mhm. ñu sukkandiku ca. Mhm. am na ñeneen ñoo xamante ne bii ñoom ku ko mën a gis ci ki àdduna bi doy na leen. waaw ah. Abdoulaye Abbas kenn ñëw na ne gis na ko mu ne ko ñun gis d'accorduñ ci loolu. Mhm. ci jamono yonent bi te ñun gënoon ci yonent bi salaam salaam. kon du problème wu bu ko waa ara waa Màkka bu ñu arafaatee bu subaa ñun dañoo war a tabaski. déedéet ñun dañoo am suñu autonomie du gis weer ak suñu bët. wala ñaa ko gis. Hmm. Oustaz Mor daal man li ma gëm man daal li ma xam mooy. li ma gëm te xam ko mooy déglul ba hmm. sëñ Mor. Oustaz Ndiaye mooy ñun suñu weer wi weer wi nuy wër li ñuy wër mooy bis bis bu ñuy tabaski. mooy fukki fan ya waaw bis bu ñuy tabaski daal fi mu ne moo nu concerné nun waa Sénégal ak ñeneen. Mm. waaye bisu Arafat moom. ara makka la concerné wu nu makka la concerné. mais nag Arafa kon dañ cay barkeelu dañ cay barkeelu Arafa concerné moo tax Arafa barkeelu ca taxawaayu Arafat. Asi Ndiaga mooy bis ba waa makka di taxaw Asi Ndiaga. Arafa waaye waaye sëñ Mor li nga wax léegi. wuy ma li nga wax léegi ni ñun du suñu du suñu arafaat suba mooy doon suñu arafaat. Ah, loolu boo mayul jaxasoo. mais mais mais arafa moo tax ñu toog di suba mooy suñu arafa déedéet mooy suñu juróom-ñeenti mooy suñu arafa déedéet bul wax arafa. arafa jàll na bu subaa arafa jàll na. da nga naan mooy suñu arafa ndax juróom-ñeenteelu suba loolu ngay wax. suba mooy suñu arafa Oustaz Ndiaga déedéet suba mooy suñu arafa fii Sénégal lii di ngeen ko gëstuwaat arafa juróom-ñeenti waaw dama bëggoon wax ma ni waaw su fekkoonte ni bii euh, da euh, ma envoyé la benn benn benn vidéo mm-hmm. xëy na du duñ ko mën a convertir ci biir émission bi teg ko déglu ko li mufti bi doon leeral mm-hmm. su ko defee day yombal mbir mi li ñuy waxtaan mooy ñii bu ñu saxalee lii. Hmm. ñu saxal nañu parce que problème bi mooy diw dafa woor bisu tabaski. Hmm. déedéet moom woorul bisu tabaski kan mooy woor bisu tabaski. mooy dëkk bi dañoo d'accord ci ni weer wi feeñ na. Hmm. dat sàngam. ñu compter benn ñaar ñett ñeent ba juróom-ñeent ba fukkeel ba. nga xëy woor bisu fukkeel ba su boobaa yow moom yaa woor. bisu tabaski d'accord naa d'accord parce que fi nga nekk la jàpp ko yow mu yaa woor bisu moo tax man ah. loolu loolu mooy mooy wax. xaaj ma mm-hmm. d'accord naa li ma bëgg a wax mooy maanaam man waxuma affaire tabaski. Mm-hmm. man dama ne ngëneel laa ku ko bëgg ku bëgg am ngëneel li mm-hmm. bis ba waa màkk taxaw. moom ngay woor loolu laa bëgg. waxuma barkeelu gi daal mbir boobu la dugg ma tabaski. barkeelu gi daal xam nga xam nga oustaz Mor laaj na la ko léegi ba nga wax ko. kañ la waa màkk di taxaw kañ la xarafa nga nekk juróom-ñeenteelu fanu tabaski. effectivement ñoom ci lañu ñu taxaw. ñoom ci la ñu taxaw waaw waaw booy war do mooy la yónnente bi alayhi salaatu wa salaam digle woon ci. xarafa juróom-ñeenteelu fanu tabaski rek la mën a doon. Mhm. mënul doon beneen bis. la ca yónnente bi alayhi salaatu wa salaam digle woon nag. Mhm. ñun suba lañ ko mën a def. lam ci digle woon ci ay ngëneel léegi nag kon boo fi waxee loolu nit ñi suba ñu dem taxaw taxawaayu arafa de mais arafa mënuñu ko taxaw ko taxaw feneen fu dul Makka mais mais boo xoolal tey jii bi ñu soxlaa baal ma sëñ Mor non baal ma baal ma benn baat tey ñu soxlaa nan la oustaz Ndiaga baal ma day leer boo ne non am ñu taxaw arafa ñu ko taxaw fu dul Makka Ndiaye Moustapha Ndiaye tey tey bi ñu soxlaa oustaz Ndiaga xoolal li nga wax na leer bala ngay teer bala ngay jàll. waa déglu damay wax boo ne non attends tey bi ñu suba la xarafa am ñeneen ñu taxaw waaw xarafa mënii su koo taxaw yu fudul ca Màkka Màkka ni leeral naa ko ci début bi la ci yonent bi digle laa wax ci ay ngëneel la ku ca woor ñu jéggal la bàkkaar yi mi nga room mi ci sa kanam loolu suba la fii Sénégal wallahi ki la suba la fii Sénégal foofa laa taxaw ta banu soxlaa waa Màkka Mamor léegi ma laaj de benn Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye banu soxlaa waa Màkka nan la nu def banu soxlaa bisu arafa nan la nu def bi yow yaa ñëw fii jokkoog jokkoog Moustapha eh, eh, eh, Omar fay ca ca ca ca Arafat ja jokkoo ma noonu ah, mais yow yaa yaa ubbi maa ubbi waaw yow yaa ubbi yow la ñu jox mais mais mais waaw arafaatam jooju yow yow arafaatam jooju jokkoo ma ak moom jooju noo koy def <laughs> te arafa tam jooju ñun wutiwuñu arafa suba. taxawaayu arafa bi laa ne arafa ci la ñuy barkeelu. de dama ne taxawaayu arafa dafa am ñaari baat yu ma leeral léegi. suba dafa am ñaari baat yu ma yoo xam du samay wax. damay woor. oustaz Ndiaga da ngay wooraa da ngay da ngay da ngay naafilewaat rek. as Ndiaga déglu ma dafa am ñaari baat yu ma wax léegi. dafa am ñaari baat yu ma wax léegi. dafa waaw waaw. الله أكبر الله أكبر لا محمد waaw kay oh, mbokk yi xam naa dañuy dellusiwaat lii mun lii faaw muy am ci xam-xam parce que am na ñoo xam ne. ndeysaan ñoo nga toog fañ toog naan pour euh, pourquoi tey tey di arafa ginnaaw suba di tabaski <laughs> jaa jaaxle yooyu dafa yàgg am ci ci ci diine ji moo tax bu ñu toogee war nay leer bu ko defee dañuy jàll ci ngëneel yi nag ndax waxtu waa ngi dem te noo ngi woon taxaw ci benn point rek di ci wax euh, su ko defee loolu moom dees na ci defaat ay ay gëstu dees na ci defaat ay waxtaan yéen borom xam-xam Oustaz Mor Moustapha Ndiaye sëñ sëñ kile euh, sëñ Mam Mor ñu toogandoo waxtaan ci ba nit ñi am ci lu ubbi seen bopp mm-hmm. dafay am solo incha allah su ko defee sëñ euh, Mor. Mhm. ngëneeli ngëneeli bisu arafa. defe naa koor gi rek la ci nit ñi jàpp nag. dëgg la waaye am na yenn bu dee ca màkk am na nu ñu koy defee bu dee ci fii Sénégal am na ñu koy defee. Mhm. ok jërëjëf euh, am na solo waxtaan wi am na solo ndax dina tax boroom xam-xam yi danañ ci gis su jiwaat euh, moo tax waxtaan wi dina gën a leeral lu bari waaye loolu après lay doon bis la nag boo xam ne yónnent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci hadis. sayidatuna haïsa radiallahu anha moo ñu ko nettali yónnent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne bisu xarafa mooy bis bi nga xam ne ci la suñu borom di ëpp lu muy jéggal ci ay jullit buñ ko bëggoon a firi ci ci ci fi suñum réew toll ci ni ñuy dunde dama naan bisub grâce la mooy bis bi yàlla di ëpp lu muy yi hmm. président de la république buñ ne korité agsi na wala feet bu mu mën di doon moo xam feetu jullit la wala feetu leneen da ngay dégg mu ne ñi nga xam ne tëjoon nañ leen prison wala atte nañ leen ba noppi war leen a tëj ñu tëdd seen peine jéggal na leen bis ni tey mën nañoo dem ñibbi seen kër dootuñu tëdd peine bañ leen bañ bañ bañ waroon a tëdd. Mhm. léegi nag lu mel noonu ci diggante doomu aadama bi ak sawara. bisu xarafa mooy bis bi ci suñu borom di ëpp lu mu ciy jéggal ki nga xam dafa waroon dem sawara ci la ko suñu borom di jéggale yóbbu ko waaye ka waroon a dem àjjana itam ca la suñu borom di yëkkati ay darajaam ca pays ya gën a kawe maanaam bu fekkoon étape deux nga nekk bisu xarafa suñu borom dafay yëkkati yóbbu la étape trois bu doon trois nga nekk mu yóbbu la quatre yonent bi alayhi salaatu wax na ne maa min yawmin aksar min an yuxtiqa allahu fi abdan min annaari min yawmi xarafa mooy li waxoon léegi suñu borom dina ci jégg dina ci jéggal ñi nga xam ne dañoo waroon a dem sawara yàlla jéggal leen far seenu tur ci sawara yóbbu leen àjjana bis yëpp nag suñu borom subhaanahu wa taala dafay jéggale waaye nag rawatina nag bisu xarafa mu ne képp koo xam ne nag woor na bisum xarafa nee na nga góorgóorlu ci yokk say jaamu yàlla bala may ñëw ci koor gi nee na nga yokk ci say jaamu yàlla nee na sa garaat dafay gën a yëkkatiku mooy li ma wax léegi mhm. eh, bisum xarafa yitam bokk na ci ngëneelam ci la lislaam matoon ci la diine lislaam mat ci la alquran mat al yawma akmaltu lakum diinukum wa atmamtu alaykum nihmati wa raditu lakumul islaama diinan jooju ci bisu xarafa la woon tey nag bisu xarafa yàlla dafay jege si ay jaamam jege suñu borom subhaanahu wa nag bu ñu ko waxee du jëmmi suñu borom ji mooy ñëw lu mel ne xaalis njaga sekk jóge ci studio bële ñëw jege si ñu loolu bokkut ak jege suñu borom boo bëggee jàngat jege seg suñu borom dëgg-dëgg mooy lan da ngay delluwaat ca lam waxoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam wa isa saalaka hibaadi anni fa inni xarib ujibu dahwata daahi isa ya sa yastajiiboo lii wal yu'minoo bi la'allahum yarsudun mooy sama jaam ñi buñ ma la laajee nee leen ku leen jege laa maanaam jege gi jege xol manam suñuy xol. da fay jégué suñu borom subhanahu wa taala. taxawal ma foofu touti rek. ma ñëw sëñ Moustapha. euh ngeeneeli ngeeneeli bisu bisu arafa bi. waaw ngeeneeli bok na ci yunus bi alayhi salatu wassalam neena ci lo xam Ibn Abbas moo net radiyallahu anhu. on yunus bi neena kep ko koo xam ne bisu arafa. même bo nekul mak fo nek ci adina bi. bo samé sa ay bët. xooloo lu haram ci bis bi. sam sa aw làmmiñ waxoo ci lu haram sàmm sa loxo la ci lu xaraam sàmm say tànk di mu ci fa xaraam yàlla jéggal na sa ay bàkkaar donc mën nga bañ a nekk ci màkk ba pare nag yàlla effacer sa ay bàkkaar ci kaw nga sàmm sa ay cër bañ cee mooy yàlla ci bis bi kon la nga ci dégg mooy képp ku ci def mooy yàlla itam say bàkkaar day gën a dañ koy multiplier dañ koy ful ñu bàyyi ko kon kon bis la boo xam ne bisu jaamu yàlla la mais di bis mooy yàlla lañ ci wax ne ci ëpp solo mooy ليس سمخوني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير دونك باتي موي باتي اب صلو تي جوليت مودي كو واخ تي بيسا عرفات دوما كو تيكي ناخ سينيغال نياري نياري باتي دنج كوي ديغ نون مي دون خام ساخ لان موي لا اله أم البن بور الا الله بودول يالا دونك يالا رك موي يالا كودول يالا جام لا ام benn jaam ko ci jaam yàlla yi yàlla amul nawle loolu lay tekki mooy la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu adna alaxir moom dongo ko moom wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu moom dong mooy sant moom dong moo am nguur ku dul ku dul yàlla nag amoo nguur waaye dañ laa moom ab jaam nga wa huwa ala kulli shay'in qadir yàlla dara tawu ko man naa man bu ko neexoon tey tey mu jëg ci naa jeex tàkk ci àddina bi Hmm. daan kun rek faye ko mu nekk li nga wax ni médicament la. Hmm. médicament la wala ab vaccin la ci ci ci ci ci ci yu mel ni mbas ak yooyu. effectivement mu am nag ñaan boo xam xaaj njaga képp koo xam ne mbas mi dal na ko. Hmm. wala mbañ mi dal ko bu koy jàng rawatina bis bi yàlla mën na ko cee sàmm du ko dal. mooy day wax ni taxassantu bi dil izzati waatasamtu bi rabbil malakuuti wa tawakkaltu xalal xayyi alladi laa yamuut اللهم اصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف انك على كل شيء قدير دونك يموم كيف كو خامني مباس مدال نك فاني كوي فاجي نكاي واخ تبارك الله كوم دالو نكاي حال مانكو جيم ان شاء الله تعالى مور دفنا ني نيوم ني سيغ مامور اك سيغ مصطفى واخا نانيو تي غنيلي تي تيري نينكو جانغي لي نيو ام تي ماغني لي نيو كيلي مي براتيك بي ak fa mu toll ca ngëneel yee na fa daan demee na nga fa daan taxawee waxtu yi nga daan waaj di génn naan ujaay ji génn leen génn leen dem leen ca xeer wa dem leen ca jabaru raxma maanaam di leen di leen xemmemtuloo ngëneel yooyu am naa sax Idrissa euh, imam Idrissa gay ma ngi naan euh, <laughs> agence yu bari ñoo ngi jooy xaalis bi biñ ci daan liggéey waaye man li ma jooy mooy ngëneel yi ma daan jëliloo sama gaay te ca li ca jëleetuma ko changement waaw xaaj xam nga mhm. Euh, bisu Arafat comme ni ko mbokk yi waxee euh, li ci yàlla di yenkeewal ci jaamam yi ak xiirtal gi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xiirtal xeet wi euh, loolu mooy li ci ëpp solo loolu ku nekkul màkka da koy da koy wut ku nekk màkka da koy wut loolu mooy li ci ëpp solo te mooy di tudd yàlla ku nekk màkka day tudd yàlla rek di julli ku nekk mag dana ko def. jàngal xuraan dana ko def. yëkkati sa as tuut di dimbale ñee doole ku nekk màkk daf koy def ku nekkul màkk daf koy def. lenn rek la nit di def te ku nekk màkk du ko def. lenn kese ci li ma ko mën a tënk ci wàllu xeetu jàmm yàlla yi mooy koor gi. ku nekk màkk moom doo woor. mais kii day woor te koor gi yonent bi nee na njortu naa ni ku ko woor. te def ko ni ñu ko war a defee bu soobee yàlla suñu borom mën na la baal bàkkaaru daaw. mbaal la bàkkaaru ren. macha allah. loolu nag. Euh, tuutul tuutiwul. Mm-hmm. parce que ñu effacé la bàkkaaru un te tey jii boo gisoon nit ku nga xamante ni ki dañ ko tëjoon. Mm-hmm. ñu ne ko dañ laa tëjoon juróomi at. mais avocat yi wax nañu ba teggi nañ la ñaari at. ah dana dana dana noyyiwaat. yàlla bu mu fa def ñett ba noppi. waaw day noyyiwaat. donc mm-hmm. loolu nag mooy loolu mooy. Oustaz am na lu daan am itam. Mm-hmm. Euh, sànq rek bi seex Omar di wax moom la doon jeexale daa bokk ci euh, Makka xutba. Mm-hmm. ndax yonent bi saa salaam bokk na ci lim gën na favoriser jour boobu. Euh, yan fànni xutba la imaam bi daan joxe ginnaaw ginnaaw bi ñu fa daan dem noonu. waaw xam nga alaaji imaam yëpp yi ñëwaat ginnaaw gi yëpp. dañuy ñëw di sofa sosaat ci xutba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga Omar ne Omar mi ngi wax ne léegi imam bi ci solidarité lu doon xutba macha allah te loolu jamono bu nekk valable ndax texte alquran la wa taawanu ala albirri wa taqwa wa taawanu texte la donc loolu du ci jóg moo tax mu bu bu solidarité boobu moom la ñuy fàttali nit ñi jàppalante surtout ci jamono bii nga xamante ne bi économiquement nit ñi dem nañ teer sanitairement nit ñi dem nañu teer mhm. li waa ji wax naan xel ma ak xalaat ma ñëpp dem nañu teer physiquement sax <laughs> doy na waar <laughs> tabaski bi physiquement dafay baax Mor mhm. defe naa ni sama benn wóolare mhm. dafa may wax naa man su ma doon dem màkka bisu arafaat laay dem déglu imam bi xut euh, maanaam xutba ba euh, euh, xutba bi yonent bi defoon mhm. nga xam ne bu ci ma jël ci benn ñu mhm. bisee moom ba déwén mhm. <laughs> maanaam moom noonu la ma noonu la gisee macha allah nga xam ni sallallahu alayhi wa rawatina jikko yi mooy xajjatul widaa googu yonent bi jikko yi da ko cee ñoroon lool lan nga nu ciy indil ci xutba googu nga xam ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon allah loolu am na solo li mbokk moomu waxit am na solo ndax euh, lislaam sëriñ tuubaa da doon wax ne. ku ne la muy digle léppit mënuma koo def. Mhm. nee na na nga jëf sa kem kàttan. Mhm. Mhm. ku ne la may la muy tere léppit mënuma koo bàyyi. nee na nga jëf sa kem kàttan. te yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la ñu jàngal. barab yu bëree bëree bëree bëri ci alquran mu ngi xamal jaam ñi moom suñu borom subhaanahu wa ci lépp loo xam ne lu diis la ci ñoom lu ñu mënul maanaam matali lépp dana woyof ci ñoom donte bàkkaar nag benn ci bàkkaar yi woyoful mhm. bàkkaar yëpp a diis ndax bàkkaar bu mag ak bàkkaar bu ndaw boo ma ko laajoon man dafa am nu ma koy firee xal wu ndaw ak xal wu mag laa koy firee saas moor xal wu ndaw ak xal wu mag ndax am na différence la xalu magoo man hmm. wa ndaw man na ko hmm. fam la mën a yóbbu wa ndaw man la mën na la faa yóbbu hmm. moo tax kon Serigne Touba doon wax ne moytu leen bàkkaar yu ndaw yi ndax ñoo leen di yóbbu ci bàkkaar yu mag yi kon loolu mat a bàyyi xel la eh, léegi nag boo ma mayee tuuti sax ma daaneel ndax dafay bokk rek ba tey ci xutba bi waxtu waa waaw xam naa ni dafay dafay benn minute nu dese nun ñëpp waaw kay kon eh, ñu ñu ñu tënk ko rek dafay bokk rek ci xutba bi nga xam ne moom nga ba laaj eh, mooy li ma doon wax léegi ci bisu xarafa bisu occasion la comme suma dana fatadala bi ci occasion la bo xamné ne man nga ci dabu lu bëri ndax ki nek makka oustaz mor wax na ko léegi mm-hmm. moom mënu koo yow mi nekul makka am nga occasion bu wor ko mm-hmm. ci boo xam ne woon tey jii tolloo nañ sax ak wa makka mm-hmm. ñu ne ño bok ben bis bo xamné ci lañ tambuli kon bénéfice la bisub harafa fonk gi ko suñu borom subhanahu wa taala fonk moo tax ay barab yu ci alquran بوخالي وشاهدين ومسعود جوجو ابو هريره نانا يوم عرفه لنجي جبلو وصفي والوتر يتم ابن عباس كي بوبم موني موي بيسوب تبسكي اك بيسوم عرفه يونت بي صلى الله عليه وسلم فكي فان يي گن تي واخنا ني يي گن تي ادمي موي فكي فان نيك تي تبسكي واي نك لنين لا تي گنا ييمي من نا ديلو وات كي مكان خمنا من نا تيجي فوف موي بو ديمي عرفه دا فاي فاتلي يوم الخيام bis penc li may wax Oustaz Mor Thiam dana ko xam xeet bu nekk ma nga fa bind bu nekk ma nga fa làkk wu nekk ma nga fa personnalité bu nekk ma nga fa doomu aadama bu nekk ma nga fa waaye ñëpp ay niroo tabaarkallaat ñëppay doon benn léegi nag yowmal xiyaam <laughs> loolu la suñu borom subhaanahu wa taala di misaal yàllante woon nag <laughs> ñu gis ko déggee ko ni nga xam ne noonu nañ ko suñu borom jërëjëf sëñ Mor jërëjëf waxtu wa mat na dañu nekk ci wàllu publicité kon Mor da joxe ñaan waaw balaa may joxe ñaan alaaji waaw euh, sama sama sama turandoo oustaz Mor bu ndaw waaw tey jii mooy anniversaire am. ndeysaan may sàkku ci yéen nag ngeen ñaanal ko. kuy wéy juram. Euh, sama rakk moo ko jur tudde ma ko. macha allah tey jii euh, ci euh, tey jii mooy anniversaire am ñu ñaanal ko macha allah yal na yàlla def ko mag teeru barke ba. léegi nag damaa bëggoon Oustaz Ngor. sëñ Moustapha ñu taataan sëñ Mor. Oustaz Mor ubbi ñaan gi nga tëj. ñu ubbi xol yi. incha allah barkeelu ca bisub arafa ba yee. ñu tàllal loxo yi. mboolem musiba yeeg balaa yeeg nattu yeeg yëpp yàlla jële ko fi ndax mu mm. dellu ci sunu jàmm. Mm-hmm. bismillah Oustaz Mor

وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لساله من الخيرات يا الله طويل لنا عمرنا صحيح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمرا كل اهداء تدر بنا خبل الوصول لنا يا الله يا الله والشيخ الخليل بدي ونك جام ني اندات كو سي بيسو عرفه بي يالنا يالا دولي ندم ابلاي جوب ماغي نونو مايسا تبارك الله ني جوخ لين رانديو بدي ونك جام بو ديوي نك موم تا ماك ابلاي màkk lan koy defee ji de amul <laughs> doy na sëkk ak barke fii moom <laughs> ma ngi noonu jërë ngeen